rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki canaba tv ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu ngi nuyu Baye Cheikh Canaba Baye ñu Assane Seck yàlla na fi yàgg te wér di nuyu euh, Cheikh euh, Alsane Niane di nuyu waa canaba Seck yëpp tey nag ñu ngi fii nga xamante ni moo di kër njaga Sarr kër Ndiaga Sarr buñ fi ñëwee tey lenn moo tax ñu ñëw fi mooy Mame Bamba Niang moo woote moo tax euh, ñu ñëw fii nga xamante ni moo di kër Ndiaga saar doxantu nañ ba nga xamante ba ba fi nga xamante ne mooy euh, waañu euh, Baye Omar Niang ñu ngi ci fekk ay xale ñoom ñëpp ñu taxaw ni nekk ci waañ bi nduróole ay yére léegi nag ñoom dañ ciy tànn kenn ki nga xamante ni moom lañ taxawal muy euh, seen Dame Sène ñu laaj ko lan moo waral mu ñëw ci bis bi te tamit bi mu ñëwee ci bis bi fekk nañ ko muy liggéey fekk nañ ko muy muy def loo xamante ni daal yëf yi njaween la ak cekkeen moo tax sëñ Dame ñu lay laaj lan moo waral ginnaaw boo nuyoo pare ñu laaj la lan moo indi fii nga xamante ne moo di Kër Ndiaga Sarr. waaw salaamaaleykum ziar naa leen bu wér a wér Thiénaba TV di ziar xalifa bi dëkk bi Baye Omar Niang di ziar ñëpp ñu fekk si dëkk bi waaw ñun li ñu indi si dëkk bi lenn la euh, ñu danoo doon naa ay bay Fall yi Mame Bamba Niang mhm. teg si bi ñu doonee Baye Fall Mame Bamba Niang suñ benn Yaay Fall bu baax moo ñu fi indi muy la soxna Ayda Ñang mu baax mi moo ñu fi indi mm-hmm. euh, ñun daal ñu mën a ko mën a waxee mooy na indi gim ñu fi indi réccuñu ko waaw ginnaaw bi nga xamante ne ñëw nañ fekk leen fii nga xamante ne mooy di moo mooy waañ bi waañ bi nan la demee ak yéen nan ngeen koy organiser ak nan la demee daal ba Ayda jox leen ba wóolu leen ci waañ bi jox leen ko yéen ñi ah boo gisee liñ sol nii mm-hmm. mooy FC Espoir mm-hmm. bu Canaba Seck euh, yaay faal bu mag bi temps yi dañu dañoo wóolu. jël waañ bi teg ko suñu lo teg su loxo. sa suba ba léegi nag ñoo ci kawam. naa lekk lekk ak naan yëpp des na fi. waaw est-ce que est-ce que am na ay gan yoo xamante ni ñëw nañ fii te xewlu wuñ wala ñu am problème mu lekk wala dara. këroo kër dugg nañ fa ñëpp lañ jox. jox nañ leen jox jox jox ba gars yi ñun ñooy mujj indiwaat lekk gi. macha allah macha allah waaw ginnaaw ba nga xamante ni ñëw ngeen yéen a ci liggéey bi. Euh, yéen a ngi toppatoo ayda yéen a ngi toppatoo gan yi léegi lan moo lan mooy seen euh, objectif après lan ngeen bëgg dangeen a bëgg seen bi mu ñaanal leen wala lan ngeen bëgg. ah man tan Aida Niang daa doon suñu yaay yu baax doon suñu lépp dañ fee ñëw naa jàpp si te yàlla tax après sëñ bi ñaanal ñu naa ba déwén incha allah chaque at daal noonu lañ koy defee. waaw sëñ daam lan ngay tàggoo. Ah, non li ma li may wax sama gars yi rek mooy ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax gars yi gën a ñëw gën cee jàpp ñu ñaanal xalifa bi naa yàlla bàyyi ko fi. Euh, ba ci kanam. amiin yaa rabbi sëriñ Dame Sène kon ñu doxantuwaat ba ci kanam ñu xool jigéen ñi nan lañ taxawee ci waaj bi. suñu yaay ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu wér a wér ñu lay laaj euh, lan moo waraloon nga ñëw ci bis bi nga xamante ni moo di bisu maam Bamba ji en temps tamit ñu fekk la ci fi nga xamante ni mooy waañ bi lan moo waral nga ñëw fi ak fan nga bàyyi ko. baax na jërëjëf suñu yaay xanaa ñu doxantuwaat ba ci kanam xooloo beneen euh, ku ñuy dajal foofu ci waay ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moo di yaay faalu Mam Bamba ñu gën koo xam ci soxna ay Ñang ñu laaj ko waañ bi nan lay demee parce que fekk nañ fi ay xale yu fi nekk ay mag ay ndaw ñu laaj ko tey euh, ban yëg-yëg la am ci bis bi nga xamante ni moo di bisu Mam Bamba maa ngi nuyu Baye Assane Seck xalifa général bu Thiénaba di teg nuyoo wàcc na ba yëpp ci loxoom wàcc na ko ci waa góor yëg-yëg bi nu am fii ci bisu maam Bamba ñang bi yëg-yëg boo xam ne xamuñu fu mu commencé ak fu mu yem. Mhm. waaw ndax maam ba dafa jëloon lépp jox ko seexu ba mhm. yàlla def mu génn àddina bisu tayam bi ñun tam ñu jël sunu lépp mhm. def ko ci bisu bii ñun nag dañuy jaay sunu euh, njuree rek jënd ko taalu bi ba mu jeex ba keroog mu jeex nag aw ci yoonam bii nag ndax li mu am ci diine ji am ko ci lislaam bi ñu nit danoo bëgg am loolu kon ñu ngi ñaan bisam bi yàlla nañ koy teewee déwén yu bëree bëri di am kontaante nag am ak mbégte seen taxawaay yow góor ak sa xale yi ci waañu ma Bamba yal na yàlla fayal ñu leen ngeen yokk nag ba ngeen yëg ndax taxawaay ngeen am ci yoonu maam Bamba gis nañ ko xalifa maam Bamba ñu koy ziyaare bu baax di ko nuyu di ko ñaanal fan gudd ànd ak wér gu yaram seen taxawaay yi tamit rafet nag képp ku njabootu maam rek rafet na seen taxawaay yi na yàlla def leen mag lu am diine bu am lislaam dañ ko baax a baax ngeen wëlu ba yëg ko amiin amiin ci barke bi am kontaan bu baax seen bis bi ñu ngi nuyu ñëpp siyaare ñëpp yaay faali ci suba ba tey ñu ngi ci wàññi mm-hmm. ànd ko ñun ci mm-hmm. yàlla yàggal taxawaay kon xamante ni moo di uh, waañu maam Bamba ñu gën koo xam ci waañu bi nga xamante ni moo di Baye Omar Niang foofu la ñu nekkoon gis nañ fi ndaw yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci waañ bi gis nañ mag ñi nga xamante ni tamit ñoo fi nekkoon ci waañ bi ñëw nañ tamit fekk fi ki nga xamante ni moo di yaay faal bi di soxna da Niang wàccee na fi ay kàddu yu am solo xale yi tamit wax nañ fi ay kàddu yu am solo mais képp koo xamante ni ñëw nga ci bisum maam ba Niang bi ñu ngi ñaan bépp soxla boo xamante ni am nga ko yal na la ko yàlla fajal wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, noo ngi fii ci pencum kër Ndiaga kër Njaga saar dëkku maam Ahmadou Bamba ñang radiyallahu an anhu ku nekk xam na maam Ahmadou Bamba digganteem ak xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ni moom lañ ko tudde euh, tey nag nu def bis bi ni ko daan defee yendu si fi bàyyi ko cene ba bàyyi ko ci réew mi yëpp mboolem fukki régions yi ak ñeent fu ne mbooloo jóge fa ñu si njabootu maam Ahmadou Bamba euh, man nag ci sama turu bopp may sant ñi nga xam ni ñoo jóge cene ba yendu ak ñun fii ci garab gi nga xam ni def nañ ko fi lu mat fukki at ci kër sëriñ Serigne Medoune Niang radiyallahu taala andu mii nga xam ni moo ma dëxal ci kër gi nekk di sama nijaay jox ma place bu xam ni moom rek moo ma ko joxoon ci jamono yooyu mu gënoon fee métti mu ni ma damay yëkkati sama doom ji nekk ci école ba te ren lay def BFEM may la ko magam ji muy alaaji bàcci ñang ak i rakam ñoom ñëpp ñu ànd ci ak góor gi ñu yëkkati xale boobu jox ma ko te mooy salami tey ma bëgg a wax alaaji Momadou caw suma xarit bii nga xam ni li may defal ci réew mi li may defal ci bitim réew maag yàlla rek noo ko xam ak moom mi koy def tey fi tey mu jógee dëkkuwaayam bàyyi itam yépp ñëw ni ma fii ngay dem par at nit ñi di la fi fekk dama bëgg a bokk ci ñi la fay fekk moom loolu mooy ay tànkam waaye bi mu dikkee fekk na fi ay xarit yoo xam ne maag ñoom ñooy ànd guddi ak bëccëg suba ngoon te mu ràññee leen du fi gan mu ngi dëkk fii ci xombol wante itteem yëpp mu def ko ci mbay bi mu tegee tànkam fii ci dëkk bi li mu jëkk a wax mooy fii nañ ma fi wutal suuf ma ma defee projet ma wax ko ni ko bàcc mii di borom suuf si day dégg naa ci làmmiñam mu ne moom suuf ku ko ku ko ittewoo jox ko ko dong la ciy def waaye am njaayam suuf sax moom xamu loolu tax na ba rakkam jiidi di Moodu ak Bamba ak ñi ci def ñëpp ànd ceeg moom suuf si di seen suufu maam des nag tey ci seeni loxo loolu moom yaakaar naa ni du itte buy jafe Mamadou ma yëkkati cant ak ngërëm jëme ko ci yow ak say bokk ak say xarit ak say soxna fu ne fekk naa la fa fu ne ànd fa ma xam say taxawaay ci réew mi ci bëgg a liggéey ci lépp nag lu ñuy liggéey muy gerte gerte gi ñuy bay ci noor bi daf koy liggéey pomme de terre da koy liggéey ak yeneen ak yeneen ak yéen ba ci jën yi nga xam ne moom la ñuy añee ñu ko ceebu jën am na ci ay bassin yu yaato yaatoo yoo xam ne ah, ah kon liggéeykat la bu mag bu bu ñu fekk si fii bëgg ñi bëgg ñëpp ñëpp dem ci tool yi bay moo tax fu ne dafay wutoo moom itteem yëpp mooy mbay loolu rek laa bëgg a xam le damaa xamul damaa kontaan ba xamul waxaay itteem daal mooy mbay mbay bay ak nu ñu bayee nag moom day bay waaw léegi nag bi nga ñëwee fekk nga fi Serigne Mamadou Seck Roqe mi mooy xalifa tafsir Mamadi Ka Seck way juróom nekkoon di Serigne Ceneba Serigne Ousseynou Khoudia Seck cinquième xalif de Ceneba fekk nga fi sa xarit Alhaji Ahmed Dame Seck nga xam ni yàgg ngeen a gise ci côté bee nga xam ni da ngeen fay daje muy Ndengleer ak lu ko mu am fa ay taalibe yoo xam ne yëpp ci sa loxo la ñu nekk di liggéey ak yow nga xam ko mu xam la bu baax a baax ak ñoom Baye Papa Ka nag ñi nekk ñëpp ak mbooloo mi ñibbi yëpp surtout nag ñëpp a ko xam ñëpp ko dégg gise gi nag moo moo amul woon waaye fii nga ñëw ci kër Ndiaga Sarr tey noo ngi ñaan yal na yàlla faju faj sa aajo ndax dëkk bu sell na nag dëkku dëkk bu yiw la dëkku jaamukaay yàlla ñëw gii nga ñëw nag doo ko récc mukk incha allah fii diine rek mooy seen mbir kon sëñ Momadou Momadou ngi nii nu ñaan ci yàlla sunu borom subhanahu yàlla na yàlla jàppale xalifa bii nga xam ni moom la fi yàlla teg tey mu wuutu fi maam Bëkkëri Ñang wuutu fi baay Bokkari Ñang eh, baay Maodo Mariam ñaŋ wuutu fi baay Madike Ñang wuutu fi daal mboolem njabootu maam Ahmadou Bamba yàlla na yàlla yàggal ko fi ñoom ñëpp nag bëggoon nañ laa gis ci dég-dég bu rafet bu xam ne liggéeykat nga bu nangoo liggéey bokk kook sa njaboot sëñ Mamadou kon eh, bala nuy jox sëriñ Mamadou Seck eh, micro bi sëñ Omar Niang mooy xalifa maam Ahmadou Bamba sëñ Omar Thiaw mu ñëw ngeen nuyoonte ma présenté la ko yàgg ngaa dégg aw turam Thiaw xalifa bu woyof ngi nii sëriñ Mamadou Seck Roqe mii nekk di sëriñ waaye nekk itam di xarit nee ñëpp xam ko nee garab gii de yaakaar naa ne yàgg na fee yendu ne jamono yu bëree bëri ay at yu bëri yendu mu yendu ci taatu garab gi ne ñoom ñii ñëpp suñ fekkoon dañoo ñëw rek egg si nuyunu rek wañu ko dellu day daal di doy sëkk Sëriñ Daam sek mi Sëriñ Souleymane ja professeur kenn ku ne ci ñoom li ngay dox suñuy déggante mooy mag ña ak wóllëre goo xam ni ca mag ña lañ ko sose kon Momadou ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar yow Thiaw saw tur moom dégg na ko lu bëree bëri ci man mii la ko déggee nee na ne li ñu dégg itam ma koy wax jëmale ko ci yow lépp day lu rafet ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla dolli laa jàppale. yal na yàlla dolli sa sutura yal na yàlla muccal la yal na yàlla musal sa liggéey gën ko barkeel nee ànd nañu fa ñaari yoon maak moom yàlla dogal sax boobu fekkunu la fa waaye lépp nee bëggoon nga gisante ak moom xamante ak yow nee looloo taxoon nu ànd fa ba foofa waaye nag yàlla koy door a dogal tey kon noo ngi lay ñaanal ci barke bis bi ak ki tax ñuy def bis bi jóg gii nga jóg ba ñëw fii yàlla na nekk sa fajo aajo zaahir ak baatin nee mu ngi sant ñëpp nee di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp kenn ku fi ne ku ne ñëw ku ne yàlla na nga yóbbaale mbég ak aajo ju faju jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di jéggulu ñu ngi leen di jéggal yàlla na yàlla boole nu jéggal ne sëñ Modou ko jox kàddu gi waaye dañuy doyloo kàddu sëriñ Omar doyloo kàddoom waaye su fekkee dafa joxe ndigal lu gàtt gàtt mu sànni ci kàddu jaamoo ko yàlla ñoo ngi nuyu jataay bi di nuyu sëriñ Mamadou Seck Roqaya nekk di sunu mag nekk nag ñun ñii di sunu xarit di koo xamee ni ci ñun nekk koo xam ne ci ñun wax dëgg yàlla doo xam fu mu commencé ak fu mu yem wax dëgg yàlla mbëggeelam ci ñun xamul fu ñu commencé ak fu muy yem yàlla nañ ko yàlla fayal ñu ko te gën ko fee bàyyi. gën ko fee bàyyi. gën a guddal fanam. gën a guddal fanam. ak ñi ko bokkal ñëpp. ak ñi ko bokkal ñëpp. di siyaare sëñ Omar. ñu ngi siyaare sëñ Omar. di rafetlu lii mu def. di rafetlu détail bi mu def. xam nga sëñ Omar bu ñëwee. nee bu sëñ Omar ñëwee. ñu ni xalifa baa ngi nii. ñu ni xalifa baa ngi nii. Eh, ku amul xalaat. loolu dina la jaaxal. loolu dana jaaxal. maanaam xalifa bi waroon a toog fële. da nga naan xalifa ba waroon a dem di ko siyaara. ñu koy siyaara. muy doxantu ba doxantu di seet mbooloo mi kër par kër. waaye dañoo wax ne ndab. nee ndab. la mu def rek lay seeb. la def rek lay seeb. ak mbaax ci moom. ak mbaax moo ci moom. dëkk bii dëkku baayama dëkk bii dëkku baayama gàmmu gi gàmmu baayam gàmmu gi gàmmu baayam la. ñi fi nekk ñëpp. ñi fi ne ñëpp. bàyyi ma leen fi indi bàyyi ma leen fi indi. waaye kenn kenn moom gisul loolu. waaye moom gisul loolu. li mu gis li mu gis. mooy ñu baax ñii kat. mooy ñu baax ñii. ku nekk ci ñoom. ku nekk ci ñoom. war naa dem ba àgg ca ñoom war naa dem ba àgg fa ñu dal. ñu xool ma ma xool leen. di xool dali dal par dal ñu xoolante. def ko muy jaamu yàlla def ko muy yàlla. am solo la. nee loolu day lu am solo. day dolli courage. day dolli courage. Euh, ku la soppoon rek ku la soppoon bu gisee lii nga def bu gisee lii nga def daf lay gën a sopp daf lay gën a sopp gën laa bëgg dem gaa bëgg te nag yonent bi nee na nee yonent yàlla Muhammad ne ah boo oyofee saa boo oyofee nee na ma yàlla yëkkati la yàlla yëkkati la ca kaw yàlla na ku mu yëkkati yàlla ku mu yëkkati ah wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sa mbokk dina bëgg sa mbokk dina bëgg waaye yow it di nga bëgg waaye yow it da nga bëgg jërëjëf jërëjëf di nuyu nag suñu gan gu tedd ñoo ngi nuyu suñu gan gu tedd gii fi teew tey di Mouhamed Thiaw di Mouhamed Thiaw ku baax. nekk di ku baax. su ma nee ku baax nee su nee ku baax la. dees na ko mën a gëm. dees na ko mën a gëm. ndax eh, ci jataay bi. nee ci jataay bi. am na ñu dégg loolu. am na ñu dégg loolu. te xamuñu te xamuñu caw. kon ñun buñ ko waxee. nee kon ñun buñ ko waxee. loolu mënees na koo rafetlu loolu mënees na koo rafetlu. ku baax la. nee nit ku baax a ngi nii. ku yiw la. nee nit la ku yiw. ku oyof la. nee na ku oyof la. ku sell la. ku sell la. ku xam li ko yàlla sant la. nee ku xam li ko yàlla sant la. ku xam li ko yàlla sant la. ku xam li ko yàlla sant la. ku xam li yàlla bëgg la. ki xam ku xam lu yàlla bëgg la caw. mu di ko def mu di ko def. ba ku mu àndal. ku mu àndal. day mel ni moom. day mel day jël jikkoom jëpp wàll ko ne Maxtaar Ndooy mii nga xam ne ñoom ñaar tëdd doo nga leen tàqalee xam na ko am na kàddu goo wax am na kàddu goo wax da ngaa wax ne damaa wax ni bu fekkoon ne njabootam tax muy def bu fekkoon ne njabootam doo nga tax muy liggéey kon li mu yor doy kon day dem tëdd li mu yor doy waaye day jaamu yàlla waaye jaamu yàlla ji ci la te jaamu yàlla amul ab te jaamu yàlla amul ab wa abud rabbaka wa abud rabbaka atta yaati Eh, faatu rek. faatu rek. yàlla na yéex yàlla na yéex. ci ñun ñii ñëpp ci ñun ñii ñëpp. waaye liggéey. waaye liggéey. ba ba fekk sa ba fekk sa borom. loolooy ndam. loolooy ndam. yàlla na la ko yàlla may. wér jafe na. wér jafe na. waaye yàlla na nga wér. yàlla na nga wér taw. yàlla na nga am jàmm. yàlla na nga am jàmm. ñun de kontaan na ci yow. kontaan ci yow. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. dama koy wax ak sëñ moor mi lu bari. nee day wax ak man ci lu bari ci yow. dañ fay bëgg sax di fa gëj. nee bëgg di fa gëj. ndax teraanga ji. ndax teraanga ji ëpp. ndax nee nañu gor. nee nañu gor. ku ko teral ku ko teral tëral ko tëral ko te yow daal gàcce nga ne yow daal gàcce nga la ma yal na yàlla sàmm yal na yàlla sàmm la dëkk bii nga ñëw tey ne dëkk bii nga ñëw tey dëkku li jaaba la bamba ñang maam bamba ñang ak góor gi gànna ñang ak góor gi gànna ñang ak mag ñooñu ak maam samba isa maam samba isa maam samba isa ñoo sos dëkk bii ñoo sos dëkk bii dëkku li jaaba la dëkku li jaaba la waaye itte boo fi indaale itte boo ko fi yal na yàlla faj ko jàngaro joo fi indi yal na ko yàlla faj ci baaxu rasulillahi liggéey. li ngay liggéey. di ci jaamu yàlla say projet say projet. yàlla na lépp ak yàlla na lépp ak te nga ko te nga fekke ko. tal ko ko. ñu fekke ko ñu fekke ko te tal ko. man de sama njaboot nga dëkkal. nee sama njaboot nga dëkkal. ca ca njéen sërëx. su ma nee sama njaboot su ma nee sama njaboot. njabootu canaba njabootu gaa tax muy wax. déedéet déedéet. damaa judd fekk leen. dangaa judd fekk leen fa. kon njabootu sëñ Modou kon njabootu sëñ Modou ñoom ñii la. seen njaboot la seen la. ma ma gën faa féete. ma gën faa féete. waaye gërëm nañ la. waaye gërëm nañ la. sant nañ sant nañu la. te ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal. lu ñu lu lu ñu yëngal. yaa man te la ñuy yëngal la ñuy yëngal. benn mu dig mbokk benn mu dig mbokk. wala mu jëm ci yàlla wala mu jëm ci yàlla rek. yooyu rek la yooyu dong nga la ñor yow. bu ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan. danaan cana ba danaan cana ba. man daal dama leen a yéem dama leen a yéem. sëriñ sëriñu cana ba dañoo baax sëriñu cana ba dañoo baax. waaye boo baaxul woon waaye boo baaxul woon. doo xam loolu doo xam loolu yow. kon yàlla na yàlla sàmm la. ñun daal boo ñu gisul. ñun daal boo ñu gisul ak boo ñu gisee. te te du man rek de. te moom rek. moo tax ma ni ñun. moo tax mu ni ñun. ñu bokk cana ba ñun ñu bokk cana ba. am ay mbokk ci àdduna bi. am àdduna bi. boo ñu gisee boo ñu gisee. ak boo ñu gisul ak boo ñu gisul. bu la neexee ngay tàllal sa loxo neexee tàllalal sa loxo. di wax amiin di wax amiin. ndax lu ñu fas yaa ngi ndax lu ñu fas yaa ngi ciy jàppale. nit sax nit sax. day dem ak yow ba. day dem ak yow ba. mënta toog ñaan yàlla toog ñaan yàlla. te bokkoo ci te bokkoo ci. Mm-hmm. loolu nit day toll foofu nit day toll foofu. martaba la martaba la. da ngay toll foo xam ne da ngay toll foo xam ne. yaa ngi nit yaa ngi nit. ba loo loo loo loo bëgg ci yàlla. ba loo bëgg ci yàlla. jarul sax ngay tàllal loxo. jarul sax ngay tàllal loxo. da nga ko naan da nga ko naan. yàlla defal ko yàlla defal ko. yàlla defal ko yàlla daal lay defal. loolu rek a fi nekk sëñ Mor mii nag. nee Mor Birame mii. mënuñu koo fay mënuñu koo fay. mbokk la de. nee mbokk la. waaye mbokk yi taxul may wax. nee mbokk yi taxul koy wax. ñoo dëkk. nee noo dëkk waaye loolu taxul may wax. loolu taxul may wax. xarit xarit moo tax muy wax moo tax muy wax nit di nga moom nit da nga dëkk ak moom. bu lay defal teraanga bu lay defal teraanga. di lu ne di du nekk sa xarit waaye du nekk moom nag sunu xarit moom sunu xarit la. sunu xarita sunu xarita ku am njariñ ku am njëriñ la. waxuma cana ba mais waxul cana ba de. waxuma lu bokk cana waxul lu bokk cana ba. waaye ci réew mi ci réew mi. moom ni ku am njëriñ. ne amal na réew mi njëriñ. fi mu toll nii jii fi mu toll tey jii. am na gàmm goo xam ne. am na gàmm goo xam ne. ñu ngay xool naan kañ lay ñëw. ñu nga yónnee nañ ma sax gasoil pour ma dem ca Jolof. jeex na ma nga ca Jolof. ca Daara Jolof. jaaxle jaaxle tey rek. nee bii dañ waxtaan. ma ne ko ñaar mën naa. ma ne ko ñaar mën naa nekk. bu bu gan ñi demee. bu gan ñi demee. nga départ. heure boo àggee baax na heure nga fajaru. ba suba. dem yendu ji dem yendu ji. waaye wóor na ma waaye wóor na ma ni. Alaaji Ousmane. mu nga may xaar lu bari. ndax seen famille boobu. nee seen famille ba lañ ko soxla. waaw te boobu. nee te famille boobu. muy famille. muy euh, famille ñànge boobu. waaw famille ñànge ba. Mor mi tax ñu xam leen. ne man mii maa leen yóbbu ci télé rajo yeeg yëpp. jeex na nga Mor mii. ne yóbbu naa ko moom. waaw gis nga Mor mii ne man mii. moo tax ñu xam leen. moo tax ñoom nit ñi xam leen. maa jël RTS. maa jël télévision nationale. am na sax ko ci mere woon. am na ñu ma ci mere woon. du ma tudd seen tur du tudd waaye moo jël RTS. maa jël RTS. yóbbu ko fa ko ba famille nekk ci kaw ba famille ba nekk ca kaw. ñëpp xam leen am ku ko woo naa ko yow li loolu. ñooñu ay taalibe ay taalibe rek lañu. da leen waroon a foofu da nga leen waroon a bàyyi foofu. <laughs> pour baax la. muy kii bi nga xamee ne ndokk bi nga xamee ne. Eh, ngeen teraanga. yàlla na yàlla defal la teraanga. li ma la wax ci njaboot gi moom. ñii ñëpp njaboot lañu yee sëñ Moussa Gueye ngi nii sëñ Moussa Gueye ngi lépp lu ñuy def ci. Moussa Ndiame journaliste. journaliste mu ngi nii di journaliste bu man bu man affaire am. waaye li ma war am fii. la am fi am fii moom itam. muy soxna dama ko wàll dama ko wàllu kii jàngoro ji. <laughs> dama ko wàllu jàngoro ji. waaw sunu goroo ngi nii toog. nee sunu goroo ngi nii bàcc ñam. kon daal euh, Thiaw. kon Thiaw. ñun daal ñu ngi lay ñaanal. ñun daal ñu ngi kenn mënut a wax lépp. kenn mënut a wax boo ko waxee day ëpp. waaye sunu mag ji. ñu ngi koy sant bu baax li ne li yombul mag joo xam ne heure bi waroon naa fekk mu yeeyu ko comme comme ni ñëpp yeeyu ko <laughs> mu toog fii rek su ca suba ba jaar ca kaamil ñu jàng xat mu waxtaan ñëw toog fii yàlla na ko gudd fan sekk fekk yàlla na gudd fan yàlla na gudd fan noo ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm nee ñu fi toog ñëpp day bañ a lim waaye benn famille rek a fi toog benn lañu ñoo seq lépp ñoo bokk lépp yàlla na yàlla teral yàlla na yàlla defal nu jàmm yàlla na nga dellu ci jàmm fek fa jàmm projet yi waaye waaye yàlla bu ci benn échec yàlla na lépp réussir ne bi xaali ngoom gaañoo waaye. ñee deux millions la yëkkati deux millions la yëkkati. xaali xaali ngom deux millions la jox la ma jox. teg ci loxol sëñ daam mi. fi mu doon deux millions yi dafa am waat na ko. ni ma daara ji xaali ni daara ji xaali naroon a liggéey. te te te sottiwul. te sottiwul. sëñ daam sëñ daam. deux millions yi deux ko ci commencé ko ci. daaw la ma ko jox ne daaw la ko joxoon fay bu ne. fa tabaarakallaahu ne nit ku baax ay def loolu. yàlla na yàlla fay la jërëjëf Seck. ñi mu àndal ak Maxtaar ne moom amul habitude di wax ci mbooloo. ne li sëñ daam wax rek la bëgg a dëggal. ci am njëriñ ak Biram. ci am njëriñ ak Modou ci réew mi. ne moom laa ko dëkkee wax. nee na man daf ma wax na dëgg daf may wax naa Modou Biram moytul lu bari dama bëgg nga dund ndax danga am njëriñ. non loolu laay wax dama nan damay ci la ci la dëkk ak man voilà ne da nga amal askan wi njëriñ wallaahi mhm. bis boo dem bopp Modou Birama ci gën sama soxna sànq ba léegi dama naan yow jógal dem bis boo dem bopp Modou Birama ci gën billaahi laahil asi kon nag sama xol dafa sedd ci moom am na nañu cofeel goo xam ne gi ci moom incha allah day jëm kanam waaye dara du ci dellu am goo xam ne day yokk waaye dara du ci dem yéen waa Thiénaba ni ma koy wax man taalibe murid laa ma bokk ci tijaan yi la waa la man dama gëm benn gi sax ba mu ëpp ni ñeneen ñi di doxee képp koo xam ne nee nga taalibe murid teg taalibe tijaan am nga ci loo ci xaajale kii ma àndal ba bëccëg soo ma joxoon lu may jariñ moom laa koy jox fee man sëñ si dama toog ni sëñ Mansour def naa juróom-ñeenti burdu xanaa yaram benn sëñ Mansour bu mu mosaa ñëw ci sama benn jigéen ne ko dama bëgg nga ñaanal nag caw mi sëñ Mansour ne ma loo bëgg waay ma ne sëñ Mansour ay million mu ne ma caw ay million xew na waay neel ay milliards waay dal di sëq ci poos bi jox ma billaahi li ma defal defalu ko ñu bari sëq ci poos bi jox ma ñaanal ma gannaaw booba léegi damay dem rek. waaw waaw yéen nag da ngay continuer sopp yàlla. yéen nag dama ne kuy wutab sëriñ leen a war a sopp gis nga nit ki bu fekkente ne danga am yaakaar dara ci ëllëg mu dimbali la te mënoo koo teg bët fii ëllëg da ngay nax sa bopp duma la topp te yéen da ngeen a jaxasoog seen i taalibe wàcce seen bopp jege ñu nit ñi taalibe bu la boo xam ne dafa xalaat ne sëriñ bi moom war a dimbali ëllëg te mënta gis sëriñ bi mënta fexe ba caaxasoog sëriñ bi bu fekkente ne am na lenn lu mu la nar a loolu moom man nag wàcce na ba dalu ay sëriñ piir ngeen ay sëriñ mooy jege sab taalu bi di ko digal di ko ci di ko teg ci yoon loolu moo di sëriñ waaye du sëriñ di ubbu ci néeg ñu di la kenn mënu laa teg bët yéen nag loolu dalu leen man looloo ma am ma jaxasee ak ñoom sëriñ bi nag foog nga ñëw tool ba ñaanal ma sama tool bale bi ma koy tàmbali sëñ Cheikh dafa ñëw sëñ Cheikh sama waay dafa ñëw ci tool bi lay moom ma fay ñaanal ñaan xaalis foo ngeen ñëw fa nag maam beneen bu bees bu ma ubbi foo ngeen ñëw ñaanal sëñ Cheikh waaw moo fa ñëwoon ñaan yéen moom sëñ Cheikh mi génn ak sëñ Baye Cheikh Baye sama waaw ñëw ca tool ba ndeysaan defal ma fa ñaan dama bokk ci yéen waaw bi ma ñëwee sama xol dafa sedd sama xel dal di jéglu it toogaay bii ma toog ñun ay taalibe déedéet ndigli mooy métti mënu ma déju ci waaye sañu ñu fekk ngeen toog nu toog ñun ay taalibe lañu waaye ndig li moom mayatu toog ci suuf ngi les ci seet sax laay julli dama amee sa dit maa ngi jéglu bu baax ci toog yi ma toog nii ci kaw ngeen xam ne loolu rek moo ko waral mais daal jàpp leen ne ñun ni ngeen ñu safoo nu ko raw lañ leen safoo cene ba dama ne ca laa bokk mu lu mu ngi nii dama koy wax nag sax lu ma ko dégg damay ñëw waxtaan amul kër gu ma sañ tudd waxtaan ak ñoom loolu wax naa ko kër gu ma fa sañ tudd waxtaan ak ñoom am na kon sëñ daam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm xalifa bi di ñaan yàlla mu ñaanal ñu Modou Birame mii dafa am njëriñ ci àdduna waxuma la dem lu mu may doxal man mii da ngeen a defee ne xëy na dara ko indi ci man waaye wallahi li asim mu ngi may lekk loolu loo xam ne ay milliards la te teewoon ma te moom mii mu ngi ko dox ba wëcc war cee jot da ci jara xul da koy da ci rek ba kanam di ko xuloo loolu al loolu man dama ko gisuma benn nit ku am yéene ci nit noonu waaw loolu laa gis ci moom nag kon yal na ko fi yàlla gën a waaw yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam yàlla guddal fanam yàggal ko barkeel ko yàggal ko ak yéen ñi ko yàlla boole tamit noonu la mën a mel nag parce que boo nekkee fu baax dañu soo jiite fu baax rek bant bu yàggee ci lem di lem waaw bant bu yàggee ci lem rek foo ko ñamee lem lay sax kon yal na ko yàlla gën a saxal ak yéen dëkk la ñoo ngi leen di sant bu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñoo yëkkati xale bu ndaw am ci moom cofeel man de loolu yéene naa ko ko tey am naa lu mel noonu yéene naa ko bi rek moo dugg yoon jub ndax loolu la yeeyoo dé dé duñ ko wax ci duñ ko def sax waaye nag nun soxna sunu xarit la lu xarit la waaye nag gis lu ku baax nga bëgg ko nga gis ku baax bëgg ko loolu daal ñu ngi ñaan yàlla yéen itamit yàlla na leen yàlla fay yàlla bu leen ci am dara lu ngeen rëcc ci barke Seydina Muhammad yàlla sallallahu taala sallam ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. keroog bi Baye Cheikh wàññeekoo ceeb bu bari bu ñu togg ca dëj ba ak dëwlin ci loxol sarak la ko teg sëriñ baay mu dikke Seck moom moo ko indi man moom tey lañ doog a gisante mais comme fekke naa loola euh, ma seede ko si sa kanam li mu tudd baay Cheikh moo tax ma wax loolu waaw. na lool. li nu gisee itam ci ca gàmmook Fallou Fall ko defee waaye toogagunu woon nii waaye mbokk mi day sans waajoo xam ne loolu la xasoo moom rek la xasoo nga man noonu laa wax acana ba gépp sunu bàjje na ko jur ndaw ba nagari nooy ànd yaan yàlla gën koo dimbali waaye yot fi nga ko féete xam nañ ko bu baax yaan yàlla doolu sa sutura doolu sa sag doolu sa ndam seen ndam jaageen baax rek. amiin de sunu dara matul waaye yéen matal ngeen lépp doolu seen sutura doolu seen. wa taala waaye yàlla boole ko jàmm ñu wéral ko kon mbokku téléspectateurs yi ba léegi rek ñu ngi ci gàmmu kër Ndiaga Sarr euh, ñëw fii ci euh, garab gi nga xamee ni euh, fi lañu daan fekk soxna Mati Ñang macha allah ñu fekk ko fi ak njaboot gi ginnaaw bi nga xamee ni waxtaan woo ngeen seetaan léegi te El Hadj Mor Biram Diop ci kanamu sëriñ Modou Rokhaya Seck ak kilifa yi mu toogaloon sëriñ Ahmed Dame Euh, amoon ngan ngoo xam ne rek euh, ñu ngi ko doon teeru foofu ci biir kër gi ba léegi benn jataay la waaye nag ñu ñëw euh, ci wetu maire Mati Ñang mi nga xamee ni mu ngi toog ak soxna ay Aïcha Diop ak njaboot gi ak njabootu Baye Omar yëpp macha allah ñoom la ñu toogal ñu yëkkati kàddu yi ñu ko daan defee rek yàlla nañ ko yàgg def defoon nañ ko daaw fekki déwén comme ni olof di wax yàlla nañ ko yàgg def te mu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Mati yow la ñuy jox kàddu gi bu ko defee nga gis wax rek boo nuyoo ba pare nan nga dunde gàmmuk ren gi muy gàmmuk sa waajur euh, maam Ahmadou Bamba ñi jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kontaan naa ci yow gi nga ñëw fii mm-hmm. man nag xam naa ren moom dafa xaw a diis lool ci man naroon ma bañ jël parole sax waaye nag il faut ma jël parole ndax mënut a ñàkk mm-hmm. sant yàlla rek mm-hmm. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant waajur yi nga xam ne moo fi dajale ñëpp ginnaaw yàlla Cheikh Ahmad Bamba ñang moo fi dajale ñi fi ñëw ñëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla yëggal ak yërmande ak mboolem ñu fa fekk ak ña ko fa fekk ñëpp. Mm-hmm. di ñaanal njabootam gi ci topp ci moom. Mm-hmm. ah mbir mi daal moom macha allah rek wax ci moom dafa yomb lool mm-hmm. ndax sëñ Bamba ay mbiram ah yaakaar naa kenn ku ne loo ca wax rek ñun la lool ah, dégg la dëgg ci. waaw kontaan nañu bu baax tam di sant yàlla bu baax di ñaanal ñi fi nekk ñëpp yàlla defa leen sutura ak teraanga ak mucc ak mucc la ci barke Seydina Mohamed. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu amin yaa alamin la ñuy wax soxna euh, Aïssa yow la ñuy jox kàddu gi yow tamit euh, yaa ñuy présenté nag jataay bi ñan lañ fi fekk euh, bu ko defee rek ñu jàll ci keneen. nuyu suñu kilifa suñu nijaay Serigne Modou Rokhaya mi ci jataay bi ma feggoog Serigne Souleymane Dia sama borom kër di ko ñaanal moom it gudd fan bu ànd ak dajale fii ak njabootam ga jiitu ak gi fi des di nuyu sama yaay soxna Mati Ñaŋ ak ñi mbokkal bi yëpp soxna Adama Sarr sama impaañ Sarr Dia ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Absa Ndiaye Diop suñu mag soxna Dia Diop ñëwoon nag soxna Ndeye Khady Diop ñoom ñëpp a ngi fi woon soxna Adji Koumba Diop soxna Ndeye Diagne Sawaare ñëwoon ànd ak suñu Souleymane Diop Serigne di Diop ñëpp ñu suñu waa Canaba ñun am ñu ñu kër Ndiaga Sarr yaay ma koy wax toujours ku am kër yaay am na kër baay kër Ndiaga ñu fi ñëwee dañuy ak mbégte ak kontaan Canaba ñëpp ñëw lañ man ku a fekke lépp ci def ren bu yi sedd na lépp lu fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ci barke Seydina Muhammad kontaan nañu salaamaaleykum. lay jaajëfal soxna Aïssé Diop euh, ci kàddu yi am solo bi comme ni nga ñu présenté tamit jataay bi jataay bi ñoo ñoo fi toog euh, wax nga ko léegi njabootu Baye Omar Niang ñu ngi fi euh, muy ay soxnaam ak ay doomam. Euh, ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom tamit dañuy dem seen wër rek bu ko defee euh, ñu yëkkati kàddu yi barkeelu euh, bu ko defee rek ñaan yàlla fekke ko ay déwéni déwén te mu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp bis bi nag neex na lool dëgg yàlla yàlla nañ ko yu baree baree a wàññeeku yàlla yëf yi neex na ñoo ngi ñaanal di jaawamar nag yàlla guddal fanam ak képp ku fi teew. yal na yàlla guddal fan yi ñëpp ñëpp fekke ko ñii nag am na tànk kanam waaye muyu ginnaaw wax dëgg yàlla saa yu di gën a neex waaw ndax borom moom noonu la mel wax dëgg yàlla dencalul kenn leen baax na yaatu na uuf na ñëpp nangu ñi man ak njaboot waaw kon nag yàlla na ko yàlla jàppale ñun ci barke Seydina lu mu man ren yàlla na ko man déwén lu ko barke xam Muhammad jërëjëf jërëjëf euh, Gora Gueye euh, ci reportage bu am solo boobu kon ba léegi euh, ñu ngi biir kër Ndiaga Sarr ci gàmmu 2024 muy gàmmu maam Ahmadou Bamba Niang comme ni leen ko waxee rek ci ndigalal kilifa yi macha allah bàyyi sëriñ Assane Seck xalif général bu Thiénaba Euh, yabal na Baye dina yabal sëriñ Jibrilu Seck mu ànd ak délégation bu mag ñëw teewee euh, cérémonie bi jamono bi ñuy wax ak yéen nag euh, ci cérémonie bi bu ñu ñaanee rek ci cérémonie bi la ñu jëm ndax waxtu cérémonie bi mu ngi annoncé wu waaye ziar bi ñu daan def di ko def ci biir dëkk bi moom ngeen seetaan noonu ñu jóge nag foofu ci waañ wi nga xamee ni Euh, mooy waañu mag bu euh, daayira bi euh, macha allah muy yaay faali maam Ahmadou Bamba ci waañ woow lañ nekk foofu la ñu jógee def fa reportage noonu la taxawee waaye bi ñu fa génnee ñu dugg kër mbay cooy mi nga xamee ni yàgg nañoo gis reportage yi mu feeñ ci nekk suñu wëlëre waaye nekk koo xam ni damay wax ni jàmbaari kër Njaga Saar la am ay taxawaay yoo xam ni taxawaay yu am solo la ku dëgg ci dugg ci dëkk bi rek macha allah loolu ñu wax di nga ko xam ndax investir na fi te mënoon na investir feneen waaye gëm cosaanam moo tax mu def retour au sources ñëw ci biir dëkkam bu gàmm gi jotee tamit euh, dina boole ay déewam ak ay daqaaram lépp loo xam ni teraanga bu mu am ci teral ay gan euh, moom dina ko indi ci dëkk bi euh, teral gan ñi macha allah di dal dalal tamit kilifa yu mag ndax fii ñu toog fii la Serigne Djibrilu sekk di dal ci kër gi macha allah loolu nag cosaan la ndax ma nga doore woon ca jamonoy Serigne Ibrahima Seck borom yaaram. Euh, ànd ko ak waajur ya macha allah di ñaan rek loolu yàlla na yàlla gën koo taxawal waaye bi ñu ñëwee ñu fekk fi suñuy suñuy soxna fekk fi suñuy rak suñuy mbokk euh, macha allah euh, muy njabootu Baye ma dikke ñang macha allah ñoom tamit am ay taxawaay yoo xam ni taxawaay yu am am solo la ci gàmmu gi ñu ñëw fekk leen rek ñuy def ziyaara ci wetu sëriñ mbay Thioye. xam àndandoo bi yàgg na démb la tey euh, euh, ak euh, tey lan moo la indi fii ci wetu kii nga xam ni moom nga toogal ak ki nga àndal mu nekk loo xam ni lu yàgg la. yàlla dogal mu mel na mu daan mel wala mu gàcceel yi ndax tey ku xool gàmm gi di ci gàmm gi waaye journée bi macha yi fi jaar yëpp ñu sante ko bu baax a baax a baax di ñaanal suñu waajur yi jiitu yàlla may ñi fi des tamit yàlla may leen di xam ne tey war a ziar bi tey su ma duggoon kër Ndiaga ba mu daj mu fiy dugg benn kër moom lay nekk ndax li ma la wax sànq yàlla yàgg na jaamam dañoo yaroondoo te mu nekk kuy kóllëre nekk fonk mbokk koy sàmm li nga wax fii sànq nga ni macha allah dafa nekk nit ku nga xam ne dafa valoriser dëkk bi loolu dañ koy seede ndax ba mu ba mu amee xéewal wala ba mu amee euh, macha allah lu ko yàlla may mënoon na koo def feneen mais dafa ñëwaat ci kër Ndiaga Sarr investir ko fi. bokk na kaa ki mbokkam bokk na kaa ak ñi ko yàlla booleel man de ko dëgg yàlla dama naan man dong la waaye loolu na ma ne du man dong ndax ndawalu guddi la kenn ku nekk boo demee dama xanaa maa ci dañ koy ñaanal euh, borom saanu daala xéewalal ko lu yokk lu kawe njortam may ko gudd fan ko ànd wér bàyyi kaa ak njabootam ma dëgg yàlla ñoo ngi jégalu ci kàddu yi guddi nag seen seen jàmme di la remercier bu baax na yow tamit ndaxte yaa ngi liggéey liggéey bu mucc ay ci kër Maam Bamba gi ndaxte yombul tey ngay liggéey liggéey bu bu mel ni kenn ku nekk ngay ngay jël xalaatam di di di di di ko di ko di ko teg waaw di ko partagé vraiment kontaan nañu yow tamit ñoom la ñu ñaanal suñu ji. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, di la sant rek. Mhm. di sant borom kër gi. Mhm. muy sëñ Mbaye. Mhm. di sant suñu xalifa Mbaye Baye Omar. di ñaan yàlla taxawaay daal rafet na. yàlla na bu ci cat dugg. ko yàgg a taxawee. di la bu baax a baax nag. sa taxawaay rafet na. macha allah macha allah kon kàddu yi mu ngi jëm ci sëñ Babacar euh, bu ko defee rek moom la jox kàddu gi sëñ Babacar ñu ngi lay ziar bu baax. Euh, wax dëgg yàlla di am mbégte ak contentement bu mag a mag ndax kàddu yi sedd yi nga xam ne jëm na ci suma jigéen yi di soxna Xadi ñaan soxna Astu ñu yàgg lool depuis xale ba léegi moom dafa nekk sama jàngandoo lépp rafet ba suñ jëmee ñaanal ko yàlla wér ak gudd fan ak taxawu njabootam ñaanal leen ko yéen ñëpp di nuyu di ziar bu baax euh, Serigne Dieynaba Serigne Assane Seck di nuyu aussi di ziar suma xarit suma Serigne sëñ Jibril Seck comme ni nga ko waxee moom yàgg nañu donc euh, depuis ci maam ba léegi la sëñ Ibrahima Seck ak sama mu ñëw continuer colori googu ak man tam bu ñëwee kër Ndiagasaan fii lay ñëw voilà di ziara di bu baax aussi xalifa moom Bamba ñu ñu bàyyi Omar Niang nekkit suma xarit wala ñu yàgg donc euh, yàlla may ko wér may defal sutura ak barke taxaw jabar gi yàgg ci seen kanam ba xéwal yu bëree bare bëri feeñ ci ñu ngi ko waxee rek wax dëgg yàlla bis bi moom euh, tout le temps day gën di yokk voilà donc euh, di gën a rafet voilà c'est dafa am solo ndax li muy jur ci njariñ dafa bëri voilà maa ngi koy wax léegi bàyyi bàyyi bàyyi kii njibi ma ne ko xam naa ne daal diggante tubaatul ba kër njaga dama dama la koy sëñ wax ni dama la koy sas waaye sas naa la ko ñu ko daal tali laal daal dañ fi bëgg goudron bu ñuul kukk mu ñëw ba egsi mu ko mu nekk suñu yitte nekk seen yitte ñu taxaw ci ci programme yi ba yëpp daal ñu jéem ko cee boole ndax dëkk la boo xam mi ngi màgg te wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ci fànn yëpp kon donc lépp lu ñu ban rek ci mu mu mu dund mu baax loolu dinañ ci dox dinañ ci wax voilà xam naa ni du jombit dina ko def doléance bu fekkee autorité administrative ñëw nañu wax ko ba ñu dégg ko ndax gis ngeen yoon bi ngeen fi jaaree nii ni mu xaw a mel waaw wax naa ci sax ak maire ñu woon kii nga xamante ni moo indi loolu alors euh, nee nañ ko mu taxawandi le temps ñu xool yoon bi mu gën a baax parce que yooyu aussi mooy suñu yitte ci mbir mi alors euh, damay wax ne tout le temps euh, dëkk soriwul fu ñu defar moo am parce boo defaree rek. alors toogloo ñëpp toogloo sa bopp toogloo ñëpp voilà donc bu ko defee loolu itam source de développement la yooyu yëpp bu defee yéen ñi jàmme nga xamante ni ni di leen di vulgariser di ñi di xalaat di ko ñu ko dugal mën di des ay jamono jamono des fois fàttali ko ci def ci am solo tamit aussi di la gërëm di sant bu baax a baax gis nañ taxawaay ci njaboot bi gis nañ sa coono dañuy suivre si éléments yu bari bari sax yooyu teg ci sa chaîne bi nii yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla yokk ko baax a baax en tout cas daal bëgg nañ kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax voilà ci taxawaay yeeg yëpp quoi yal na yàlla dool li suturé si dool li mën gi ba li ñu yéene aussi yëpp yàlla def wàcce aussi dal ci réew mi parce que laaj nañ ko euh, tolluwaay bi laaj na ko li gën ci Sénégal aussi suñu borom def ko voilà parce que lu matal bàyyi xel la parce que des fois dinañ foo xamante xel yi dinañ jaxasoo waaye li bu xel yi jaxasoo ñu ñu mën ñaan ñaan ba mbir bi tàbbi tàbbi ci loxo yoo xamante ne nii kenn du ci sonn voilà loolu am solo la voilà parce que nag mbir moom yàlla moo koy joxe te ko jox rek jox na la ko voilà mais li am solo nit moom ñaan rek lañ mën voilà bu ñaanee xaj na bu tombeek da euh, suñu borom nam mu jëm ci loxo yoo xamante ni nii dina neex ñëpp yàlla ñu ko yàlla defal kon tey aussi bis la la boo xamante ni buñ ci ñaanaloon ñu ci yaakaar kontaan bu baax soxna xarit kontaan naa soxna su amee kontaan naa bu baax a baax a baax jërëjëf ci kàddu yu am solo yi euh, dégg ngeen kàddu yi xew fii euh, ci kër Mbaye euh, Thioye soxna Xadi mu bàyyi ma dikkee moo njëkk a yëkkati kàddu Euh, su ma neexee sax ma ni soxna Khady Ibrahima euh, moo njëkk a yëkkati kàddu mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu sedd waaye kàddu yu kóllëre la euh, mu nekk kàddu yu am solo waaye jaajëf ji nga ñu adressé tamit jaajëf jooju ñoo ko bokk ndax njoboot lañu fii ci kër ma Ahmadou Bamba mag ñi noonu la ñu woon démb ak barki démb macha mu nekk lu amam solo soxna Astou dégg ngeen kàddu yi mu ci teg moom tamit kàddu yi sant ak ngërëm rek macha allah doyloo li nga xam ni moom la soxna Khady wax waaye sëñ Babacar euh, nekk euh, suñu wóllëre euh, dégg ngeen ko ci kàddoom macha allah moom tamit nekk koo xam ni ku jar a la yàlla nañ yàlla defal la wér defal la gudd fan gën laa taxaw ndax damay wax ni ab dëkk moom bu fekkee da nga faa dëkk di taxawu dëkk ba comme ni George Fitzgerald Kennedy waxoon ni mooy yéen américains yi na ku nekk xool lan la defalal Amérique waaye bu mu xool lu ko Amérique defal sëñ Babacar Thioy xool na li nga xamee ni moom dëkk bi defal na ko waaye xoolul li ko dëkk bi defal loolu moo tax lépp lu mu am rek andi na ko ci dëkk bi macha allah pour euh, teral dëkk bi euh, pour tamit euh, ñu xoolaat dëkk bi yeneen yi bët ndax nit nekk ci suufam tamit yëg naa ni ci am na ñoo xam ne bu ñu amee teraanga duñu xalaat fenn fu dul dëkk bi ndax moom moo joxe exemple bi yàlla na yàlla gën laa taxawu Euh, ci barke yonent bi ñun loolu moo ñu bàyyi ci ci dëkk bi moo ñu bàyyi ci micro bi moo ñu bàyyi Thiénaba TV ndax euh, bëgg a fésal Thiénaba rek partout dans le monde ak fépp foo xam ni nit da koy gis rek euh, mu nekk loo xam ni lu am solo la ñu ngi yeesal kóllëre bi ñu am macha allah di ko yeesal bu baax a baax di xam ni bàyyi nañ la xel ni ñu bàyyee xel di ñaan yàlla yàlla na gën laa taxaw ci barke yonent bi kon loolu lañ jële woon fii rek àndoon ak Talla Niass Diop ci caméra bi ñoom kay wa ahlul fadaili isabat asfaxin wa xayrin wa naili mamadou lamin samad bi xabulil xaqi min xayri xayili axaran li ayatin law wa dalaili mamadou lamin moom kay biha سمع ترخوا محمد الأمين تاريخ واتا يا رسول الله الله جبان بكي جميدنا نيخوي نحمولم ترانغي أقوالي نبي المصطفى يا كارل يا سنو وسيلة أقر عند رحمن ينبي المصطفى دونغ لا ياكار بنو تيتي مجالنا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله بوك جولي بوك طالبي واكر ينتي الله محمد واكر شيخ تشانبا waaye waa kër Cheikh Ahmed Bamba Niang waaye waa kër Baye Serigne Bakary Niang fa tabarakallahu yal na yàlla dolli ay leeram ñoo ngi nuy ñëpp di ziyaara ñëpp di bég ci jotaay bi fa tabarakallahu di ñaanal sunu góor gu baax ga Baye sëriñ Bakary yal na yàlla dolli leeram yal na yàlla dolli jaamam ay ñaanam ci njaboot gi waxtu wu nekk yal na ko yàlla gën a dëgëral fa tabarakallahu yéenay njaboot gi ci gannaawam yal na yàlla àggale lépp yàlla gën a Euh, di jël yooyu yëpp nag ak ziyaara bi jaarale ko ci kilifa gi nga xamante ni fa tabaarakallaahu mooy taawu góor gi di Cheikh Ahmed Bamba mii toog mu yóbbaaleel ñu rakkam ñëpp alxaaji Malick a ngi nii fa tabaarakallaahu baax lool am taxawaay ci diine ji waaye nekkal ko fii waaye fa tabaarakallaahu nekk ni rafet fépp fu mu teg tànkam rek fa tabaarakallaahu dafay mat sëkk ba mel ni sëñ Bamba sëñ Ousmane ñoom ñëpp teew nañ dara manqué wul kon sëriñ alxaaji Malick ñu ngi lay ñaanal say ñaan ci bis bi yàlla na ko yàlla gën a nangu sa yéene ci njaboot gi yàlla na ko yàlla gën a nangu euh, di ko ñaanale noonu sëriñ Ousmane fa tabaarakallaahu euh, nekkal nga fi sëñ Bamba nekkal fi sëñ Ousmane te lépp mi ngi rafet waaye di nuyu fa tabaarakallaahu sëriñ Assane di sunu sëriñ moom it di sunu xarit waaye njabootu bàyyi sëriñ Bakary yëpp fa tabaarakallaahu waaye li olof di wax naan ragal féete day xañe cër ñun sunu buntu ci kër bàyyi sëriñ yi mooy alaaji Mara Ñang mu baax mi toog yàlla boole ñu ak moom wax naan mën a diw depuis Mbote jusqu'à Koul loolu la yàlla dogal sama diggante ak moom ba ma fi nekkee di jàng métier ci sama nijaay Bamba ba léegi fa tabaarakallaa mosu ñoo tàqali ko du ci xalaat du ci suñuy xol du ci suñu jëflante du ci suñu dara suñu lépp mën ak alaaji maara benn lañ waaye nag wax naa ko alaaji Malick barki démb ca campement ma ni ñun dañoo juddu rek fekk suñu papa ànd doon benn sama papa alaaji Ousseynou Mbuub ku ko xam xam ko ci keppaaru Baye Serigne Bakary Niang Baye Bakary defal ko lu bëri ba damay wax ne ñun fu ñu taxawee tudd yàlla tagg Seydouna Mohamed dinañ ñaanalaat Baye Serigne Bakary ndax am na loo xam ne kenn mënu koo leer waaye fa tabaarakallaahu lépp moom la kon ñi ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla gën a seral tërluwaayam alaaji Mara ñi ngi lay nuyu bu nu sañoon suba teel la ñuy xëy ñëw fii 9h nekk ak yow nekk ak yow ba gàmm gi jeex ba nga yeewee ñu ñu demaat canaba ndax sunu diggante fa tabaarakallaahu moo toll noonu te sa mag yi nañ loolu waaye sa mag yëpp fa tabaarakallaahu ànd gi ñu ànd ñoom dañ ko rafetlu waaye waxtu wu nekk ñi ngi ñuy ñaanal kon seen i ñaan ci ñun yàlla na ko yàlla nangu ma ànd ak sama mag sëriñ Ibrahima Ndiaye mi nga xam ni su ñaari yaay bokk ndaay ak baay ñun kër njaga lañ am mooy suñu pari bu nu fii ñëw dañuy kontaan gàmm gi nee naa man mënumaa fexe fexe ba teel a ñëw 9 lan moo tax heure bu gàmm gi jotee alaaji Malick yàlla xam na ni ñëpp dañuy ñëw ci kër ga ni ma mën sor damaa bëgg dem ma ne Pape Sow xaaral ma toog ci mbedd mi jëla oto bi yóbbul su yóbboo ñëwaat ma bëgg a yéeg ñeneen ñëw ma ne ko yóbbul noonu laay defee ba nga xamante ne dem naa ba xam ni man rek maa fi des ak ñi ma mën a àndal ma soog a dugg ci oto yi ñëw kon fa tabaarakallaahu ñi ngi ñaan ci yàlla lépp lu ñu fi jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu euh, waa Thiénaba TV ñi ngi leen di jaajëfal taaral ngeen kër gi yóbbu ngeen kër gi image am foo xamante ni fa tabaarakallaahu yàlla moo ko jaarale ci yéen ngeen koy defin ci wu rafet alaaji njàmme yàlla yàlla guddal sa fan sa kàddu rafet na sa liggéey rafet na sa taxawaay rafet na waaye fa tabaarakallaahu bépp image boo xam ne aju na ci kër Seexu Canaba fu waay mën a nekk ci réew mi di nga mel ni da nga faa teewoon loolu nag yombul liggéey bu rëy la yàlla na la yàlla taxaw sunu papa yi toog fii ñu ngi leen di nuyu ànd nañu ak sëñ Mouhamed Ñing di doomu Baye Serigne kaa Ñing kon ñi ñu war a àndal rek àndal ku xam Baye Kaang xam ko ci dëkk bi xam taxawaayam ci kaamil yi fii waaye xam digganteem ak Baye Serigne Bakary fa tabaarakallah ñoom ñëpp ñu ànd ñëw euh, topp ci sunu ginnaaw kilifa Pape Abdoulaye mi nga xamante ni ànd na njaboot gi yëpp jiitu nekkal ñu fi te fu nekk fa tabaarakallaahu dafay mat sëkk comme ni ma ko waxee léegi rek ànd ak sëñ Mouhamed Fall mii nga xam ni ngeen ñaanal ko yàlla dafa taxoon suñu wayjur sama papa génn àdduna ba am 40 jours ay wayjuram yëkkati ko teg ko ci suñu loxo ñuy ànd ci yàlla di ànd ci rasulullahi di ànd ci diine ji fa tabaarakallaahu seen i ñaan ñoom ñëpp ci bisu maam Bamba bi yàlla na ko yàlla gën a nangu ñi ngi ziar jotaay bi di ñaanal suñu papa yi toog sunu sañoon kenn ku nekk dañuy jaar ci sa tur nuyu la ziar la waaye bi ñu tàggee bi rek yëg nañ xol yëpp bég nañ kon ñi ngi daaneel sunu kàddu nag alaaji bamba say ñaan ci njaboot gi yàlla na dëgëral alaaji mara kon ñëw nañ di nuyu sama mbokk jànkat yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen euh, mbokk yi kon dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak ñun euh, boobu ba léegi euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di delluwaat rek di leen ziyaara di jaajëfal Mouhamed Mansour ci kàddu yu am solo yi ak bayit yi mu fi yëkkati yàlla na yàlla nangu ci barke yonent bi euh, comme ni ñu leen ko daan defale saa su nekk rek bu gàmmu gi jotee heure bii dinañ leen defal ay ziyaara ànd ko ak yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci euh, bitib euh, Kër Ndiaga Sarr wala ngeen nekk ci biir Kër Ndiaga Sarr te tànk yi sax guddul ba ngeen mën a àgg fenn fi ñu mën leen a rek lépp loo xam ne xew na ci biir kër yi tey nag ñu ñëw ci kër Baye Serigne Bakary Niang fekk fi xalifa baay ba kër yi muy Baye Serigne Bamba Euh, ak njaboot gi mu àndal euh, fekk nañ fi euh, sëriñ El Hadj Niang di coordonnateur gàmmu Kër a saar macha allah fekk fii sëriñ Goumba ñan Mara di suñu xarit macha allah moom tamit fekk nañ ko fi waaye fekk fi rek njaboot gi oustaz Madické mu ngi ci yitte yi moom tamit mu ngi fi ak sëriñ Assane ak njaboot gi ñoom ñëpp wuñ leen. ak sëriñ Ousmane moom tamit mu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi macha allah di leen ñaanal rek ñu yàgg leen fee fekk ci barke yonent bi. Euh, kër Baay Bëkkëri ñan nag buñ fi ñëwee ci bisu gàmmu kër Njaga Sarr yàlla def euh, gàmmu gi dimension bi mu am yàlla baaxe ko euh, mu wàcc ci loxo loxoy Baay Bëkkëri ndax Baay Bëkkëri ni mu nekkee woon ci biir dëkk bi ni mu nekkee woon ci tund wi waaye ni mu nekkee woon ci réew mi ñëpp xam nañ ko kër gi képp ku fi mas a wàcc wàcc fi aajo bala ngaa génn mu faju loolu leer nañu ndax Baay Bëkkëri ca ca ca yaatu ga sa loxo sax boo ko joxee bala nga kaa rocci Euh, dina ko téye nab nabbeeku ay yoonu yoon doog laa bàyyi rocci loxo bi ndax bëgg nit euh, loolu nag moo tax ku ñëw wàcc si kër Ndiaga Sarr kër gii doo ko mën a teggi loolu moo waral Baye Bamba koo fi jiis rek looloo ko fi andi euh, ndax waajur ya ndax yéen ñi ngeen xam tamit yéen yéen a doon ndono li te nag yàqu leen ci dara yàqu leen ci dara yaa ngi dem ak ñëw waaye ñu ngi lay seedeel ni sarak yi nga fi bàyyi sëriñ Ousmane ak sëriñ El Hadji Niang ak ñi mu ko bokkal yëpp Euh, ñu ngi jotale ñu ngi jotale ñu ngi dem ci nit ñi ñu ngi jokkalante ak ñoom te fu ñu demee rek yóbbu yóbbuwuñu fa seeni tur saw tur lañ fay yóbbu loolu ñu ngi la koy seedeel ndax ñun programme yi ñun ak ñoom ñoo cee daje. nit nag bu dee def lu baax boo dajee kilifaam da nga koy wax ni ko ñoom ñi ngi fi bàyyi ñu ngi def lu rafet. Hmm. ya barki dem rek ci mujj ma toog ak sa rakk ji muy sëriñ Oustaz euh, euh, Gumba Mara ca Kajoor ca wetu sëñ alfa mu ma dikke kàddu yam fa yëkkati ñaari baat yu mu wax sa tur lay wax. te bu wax saw tur mooy wax baay bëkkëri wax baay bëkkëri mooy wax maam Ahmadou Bamba Ñang noonu la Elhadji di def noonu la sëriñ euh, Madika di def noonu la euh, sëriñ Assane di def noonu la keneen di def noonu la keneen di def euh, ñun nag puso la ci kër gi ndax suñu bàyyi dafa waxoon ni moom du ànd ci lu dul dox ñun tam bëgguñoo ànd ci lu dul dox te tànk ya mu tegoon teggi ko foofu lañu ko bëgg a teg ndax daana wax ni canaba gii dara jëru fee xëccoo bu nee canaba nag mooy kër njagasaar mooy feneen mooy feneen na nee na na ku nekk àggalee la sa baay doon def bu ku nekk àggalee la sa doon def rek lépp jag ci seen li seen waajur la mu nekkoon loolu ngeen nekk ñun itam ci li ñu nekk loolu suñu waajur nekkoon kon ñu ngi leen di ziyaare ci bis bi di ziyaare kilifa yi eh, ñëw ñu nag ñoom ñoo nekkoon ca kaamil ba ñu am fay taxawaay yu rafet moom mi moo jàng xatmu bi macha allah ñu ngi koy ziyaara eh, di ko jox waayam ci bis bi ak kilifa yi wàcc fii yëpp bu ñu sañoon dañ leen di tudd ñoom ñëpp ku nekk sa tur eh, sëñ Mansour seen ndono ngeen yor seen ndono ngeen yor fii nag damay wax ni kër Ndiaga Sarr bu jotee moom njabootu maam saan day beral loxo waa kër Ndiaga Sarr waaye nag ku xam di nga ni looloo jaadu ndax ni mu demee démb yàlla yàlla guddal seeni fan te wéral leen ci barke yonent mi El Hadj Malick ñuy jox kàddu gi bu ko defee rek yaa xool ni mu war a demee nga nga nga joxale ko noonu rek ñu topp sa ginnaaw na sheytaan irajim bismillahi rahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk El Hadj Malick mooy nuyoo day siyaara di yëkkati kàddu xalifa sëriñ Bakary Cheikh Ahmadou Bamba Niang di mu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax ndax ñi ngi waxe ci kàddoom di yëkkati ay kàddoom di ko jëmee ci mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina baayam bi mu feggool di xalifa maam Seynu Ngom si Ngomeen ah, di sunu baay Mbay Ngom fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ah, ñu ngi koy nuyu di ko siyaare ak mboolem jullit yi mu àndal yëpp waaye ak mboolem sunu mbokki Ngomeen yi mu àndal yëpp ndax xam nañ leen benn par benn duñ si fattu dara duñ si fattu dara ndax ñun ak ñoom benn lañu ndax ah, Ngomeen sunu maam da ko tudde woon Jidda waaw sunu maam daf ko tudde woon jidda moo tax euh, fa tabarakallah bu ñuy gàmmu ji ñu yenn ngomeen ba ngoon ñu dem cene ba julli jee fa tàkkusaan kon fa tabarakallah xalifa maam Seynu Ngom moo ngi nii toog ànd ak ay rakam ay doom ay jarbaatam fa tabarakallah lépp yi rafet ñuy rafetal lépp ba moo waral bis bi bi mu jotee tey ñoom yëkkati woon nañ kàddu ba pare tombanteeg ñu leen doon dellu bëgg a delloo jawaab te santeeg sang yu tedd yi di agsi ñu taxawoon tuuti pour delloo leen seen jawaab waaye ñu ngi leen di xamal ni euh, sëriñ yi tey jii bu fekkoon jógaan na ba si fii xelam dina gën a dal waaye xelam dina sedd ndax seen nekkin ak moom lépp rafet na lépp rafet na ndax euh, ay tuut tànk lan waaye fanweeri at ak ñaar ba jëm fanweeri at ak ñett ñu koy dund ak moom si yoon wi di ko dund ak moom ak yéen lu si bari ñu koy xam di dégg muy wax si yéen di dégg si yéen ngeen di wax si moom ba néga ni ñi ngi bokk di dundani kon ñoom ñi nga xam ne ñoonu jiitu yal na leen yàlla tabal ajana fa tabarakallahu di dellu si waat ci ginnaaw tuuti rek di nuyu sang bu tedd bu yiw bu baax di sunu mbokk waaye di sunu sëriñ sëriñ moor Binta Si moo ngi nii toog di sunu doomu ndijaay waaye di sunu sëriñ di boroom xam-xam sëriñ Mor Binta sa kër ndijaay ngi noonu sab dëkk ngi noonu fii luñ fi wax yaa ko war a wax lu ñu fiy def yaa ko war a def gan gu ñuy dalal yaa ko war a dalal kon boo ñëwee tey si biir ëtt bi ñun waruñoo def lu noppi rek toog diglu la nga feggoog sa waa kër Ndijaay waaye di say taalibe ki si jiitu di xalifab sëriñ Bakary di si Ahmad Bamba Ñang mii ah fa tabaarakallaahu nga ànd ak oustaz Mouhamadul Amin Ndiaye mi nga xamante ni yàlla rek ko ah, am na groupe yu bari yu nu daje. waaye dafa am ñaari groupe yu ñuy daje yoo xam ni benn bu si nekk cër ba mu fa yor cër gënu ko faa rëy bu jiitu bi si groupe maam Cheikh Ahmadou Bamba Niang oustaz Mouhamadul Amin Ndiaye moo yor ayatul yow aaye bu fa wàcc moo nu koy tafsiral si diggin wi nu toll jamono bi ba mën ba na mën a dégg aaye boobu tey bu ma neexee di tafsir lu bari te si moom laa koy mokkale fa tabaarakallaahu bu nu doxaatee si kanam tuuti amaat beneen groupe bu ñuy wax groupe bu soppey na bi fa tabaarakallaahu ba mu fa dugg see yàggul mu ñëw rek ñu jox ko ayatul yow xoolal cër bi ko yàlla cëralewaat foofu kon oustaz Mouhamadul Amin ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la wax ne alxuraan moonu boole lu jiitu nag mag ña diggante waajur ya waande sa diggante yow ak sunu waajur nga siy wax lu bari lu mën a nettali si biir mbooloo te loo si wax rek muy kéemtaan fa tabaarakallaahu kon ñu ngi lay sant yow tam te la gërëm si jataay bii nga ñëw fekk si kook ñun feggoo ko ak ñun Euh, Mouhamadul Mansour ñu ngi lay nuyu di la siyaara bu baax a baax a baax di wax ni Pape Abdoulahi Mbuub ñoom dañuy génn rek ngeen di dugg si waaye ba tey génnuñu ndax yéen a fi nekkaat ndax yéen kat euh, ñun ak yéen la ñang mooy ñing ñing mooy ñang ndax sekk mooy ñang sekkay ñing waaw fu nu jataay bu nu def ba jóg gisuñu ko sant ñing wala ko sox koo si maam Mor Awa ñing wala maam Jibril ñing war nañoo tiit waaye sekkit jotaay bu mu def ba jeexal gisul ko sant ñang war naa laajtewaat fa tabaarakallaahu kon loolu itam ñu ngi si sant di leen si gërëm bu baax a baax sa digganteeg alxaaji maaraa nag man damay lott di si bañ a wax ndax damay bañ cat ndax cat dafa sew waaleykum salaamatulah ndax yéen ñaar yàlla la te mag ñee ko nas kon yàlla na leen cat seexlu loolu daal laa si mën a wax si côté boobu yem fi rek ndax loolu rek laa li siy wax pour ñu moytu ko bu baax a baax ndax cat dafa sew te yéen. dañ leen di ñeereem tal comme ni ni ñeereem mag ñi ndax fa tabaarakallaahu lépp rafet na lépp jekk na lépp yiw na te lépp yàlla keroog campement bi nu tasee fa tabaarakallaahu Pape Abdoulahi Mbow bi mu yëkkatee kaddu bu muy riir si jataay bi ak mbooloo ma fa nekk ak setu yonent yi dafa riir daan ni ñaanal leen sama rakk ji yaramam daw fa tabaarakallaahu xam naa ne temps bi dañoo xat te mbooloo maa ngi daw di ñëw sunu mag mooy dugg si muy Bamba Bilal fa tabaarakallaahu waaye Sëñ Bamba li mu waxoon jëme ko si mbooloo mi dafa bari sunu doomu baay di bàyyi Serigne Niang mi euh, waajuram moom na Kër a saar Sarr euh, si na fi léegi depuis si suba ba léegi mi ngi yendoo ak ñun toog nii yaru lool di sunu mag nag ñu bokk bàyyi fa tabaarakallaahu mi ngi nii toog euh, jóge ba Jobaas di doomu baay Mbay Niang fa tabaarakallaahu waaye dafa réeral boppam si sunu biir te sunu kilifa la loolu na ñu wax ko mbooloo mi xam ni sunu kilifala moo ngi nii toog. Euh, oustaz mari euh, mari ki Gumba maaraam mi ngi may mi ngi fàttali rek ndeysaan ndax moom dafa am coloré te rawatina mag ñu baax ñi doon jëflanteek ay waajuram te leen a bàyyi xel euh, suñ daabo mi bi ko Gumba yi présenté maa ngi ree moom yàlla moo nu boole ñu xamante sa mboora ay gor yu baax ay nit ñu baax wax si moom mu ni tëll génn rek kott ma ñu waxante mu ni ma man de Serigne Madické Niang sama xarita ma téye ko ñu wax ay wax mu dem cees dox doxin wu rafet keroog maa ngi kër premier ministre bi bi ñuy wax Bamba Bilal mais sunu mag woo ma téléphone mu wax fa ay kàddu yu daw yaram waaye muy nit ku baax foo ko seen mu toog rek lu baax ko fa toog loo ak luy jariñ doomu aadama yi kii ngeen gis mu toog nii jóge ba kër maamu depuis suba ba léegi mi ngi fi moo ma jàngal métier oto waaye dafay ñëw ak i teraangaam ni lool tey moom sama kilifa la fa tabaarakallaahu de noonu la mbooloo mi ñii yëpp mer si ñun kii dugg si léegi di essayé nu ñàng waajuram ak sunu waajur ñoo bokk benn baay mu agsi doomam di taawam sunu mag yor ko na Ousmane fa tabaarakallaahu ñu ànd ak sunuy doom ñoom ñëpp ñoo ngi nii mën nañ koo toppee mbooloo mi kenn ku nekk ñu ni kii nii kii nii kii nii waaye jataay bee ko laaj ah waa sunu ma ni sunu doom waaw <laughs> fa tabaarakallaahu kon sëñ Bamba li mu waxoon ëpp na loolu Ah, te ñi sant Fall wala Mbeng ñi ngi xool palaat yi génn rek bu ko defee rek Baye Ndiame yow ñoo bokk Baye yow Baye Ndiame li ngay def si kër gi Mansour wax na ko ñun dinañ si jaar jaaraat si fii kër maam si Ahmadou Bamba ña ngi tollu tey si média ah, fa nga koy yóbbu kenn mësu ko faa yóbbu donte dama ni njaam ah, Ndiouga Mbengue moo njëkk a andi RTS daa nga jullikaay def si lu rafet ba nga ñëwee nga fob loolu. li nga si def dafa mucc ayib ba pare boole kook sët bu nu foofoo tey ba am taxawaay bi ñu taxaw say kàddu da see jib waaw de see jib man nag lii sama problème mooy damaa mënta waxee si mbooloo parce que dama dul jay nit damay wax li ma xam baa ma noppi baa ma bàyyi ñu waxal ma li nit def nag laay wax yow sa wax naa la ko si biir wax naa la ko si biti sa taxawaay si kër Njaga Saar bu du doon Ayda da nga koy taxawee ndax xam nga ni danoo bokk baay ba pare nga tourné yoraat sunu mag muy soxna Ayda muy sunu présidente kon jaadu na bu nu defee jotaay yu mel nii ñu ne la jëf njàmme sa taxawaay rafet na waa Thiénaba TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm Mansour li nga wax léegi si ñoom am na solo trop ñi ngi koy xool fu nekk si àdduna te bu nu demee ba duggaat seen dox bi taa ban fay def taaral ko ba mu génn suñuy nawle duñ ñu yeb te bu nu neexoon suñuy nawle dina nawle yeb ñu kon jërëjëf waa cene Thiénaba TV ak waa ba vingt 24 bi fi jóge léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen di boole rek sant leen. gërëm leen si ndigalul xalifa Serigne Bakary waaye si ndigalal Baye Omar Tall Niang ndax tey jii sunu toogaay bi da koo neex bu ko neexul du am da koo neex ñaari kilifa amu fi génn kilifaa fi am muy bàyyi Omar ñaŋ mooy xalifa maam Cheikh Ahmadou Bamba Niang moom la ñuy liggéeyal si biir moom la ñuy liggéeyal si biti dafa jaadu nag boo duggee si biir kër ne asalaamaaleykum fekk fa ko ne la waaleykum salaam dafa neex looloo tax ku dugg si biir kër gi di moo ne asalaamaaleykum sëriñ Bamba ak rakam ni la wax aleykum salaam waaye képp ku fi ñëw ak addiya wala ngay siyaare Baye Omar ay xalifa maam Seex Ahmadou Bamba Ñang kii mooy xalifaab sëriñ Bakary xëccoowut ak Baye Omar dara langantewut ak Baye Omar dara diirantewut ak Baye Omar dara xanaa di taalibe rek topp si Baye Omar rek di ko diglu rek di ko diglu dong di ko diglu rek ndax jamono kat média daa doy te jamono kat wax dafay jafe. waaye bàyyi Omar Tall mooy xalifa maam Ahmadou Bamba Niang bi mu toogee Serigne bàmb dafa ànd ak Serigne Ousmane ak njaboot gi yëpp jël seen lépp ñëw ni ko ko bëccal ni ko Baye yow yaa ñàkk yaay sunu sëriñ yaay sunu Baye yaay sunu kilifa bis gi ni tey diglu ñu Baye Assane Seck yow yaay diglu Baye Assane ñun Serigne Bamba la ñu diglu mii waaye Serigne Bamba amul kenn ku dul yow loola nag ba nëgë ni dara du ko xoosu si bu gàmmu jotee. Serigne Bamba ki rakkam jël addiya ju tol jë ju mat sëkk yëkkati ko teg ko seen loxol baay ndax mooy sunu Serigne ni ko yóbbul cene ba bu gàmmu jotee foo waaye amee kóllëre amee fa wóllëre nga dajale oto yëpp dajale teraanga yëpp ñëw teg si loxol sëñ Bamba ni ko tegal sa loxol Baye Omar mu jël wuti cene ba loolu nag bëte si tegu doo ay wax ñun nag yàlla dañoo dimbali dañuy bëgg di jëf ba wax ja ndax wax jamono bi jëfal dafa laaj pour folli ko sànni sa àll kon ñi ngi nuyuwaat ñëpp di waat ñëpp sëñ Bamba sant na leen gërëm na leen sëñ Mor wax dafa jafe ah fa tabarakallahu Muhammadul Amin jërëjëf damay ñaanal si biir di ma ñaanal si biti di ma teel dog <laughs> kee nag macha allah alhaaji Mara moo kee mu dendel buñ ko gërëm dee leen ñu ko ñaanal yàlla cat seexlu leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fàtte ñoo xam ne mu ni El Hadj Malick mii dafa waxtaan ba pare. am ñoo xamante ni moom it bëgg na ko cee dolliwaat njàmbaas ndax donte doon na sóoraale temps bi. nee na tabaarakallaahu ñu jóge fii ci kër Ndiaga Sarr di leen fekki ngomeen nee na di ñu nekk ñoo xam ni ay jàmbaar lañu ci yoonu na ci yoonu Cheikh Ahmed Bamba bi suñ fa wàccee fa wàccee nag seen ay teraanga jëf seen ay jëf. lépp nee na lépp. dafa bari dafa bari. ñu commencé ko suñu nee na ñu commencé ko ca nag ci suñu maam Bamba ñang jaarale ko ci Baye Modou Marème. jaarale ko ci sëriñ Serigne Madické Niang. ba ci Baye sëriñ Bakary mii. loolu yàgg lool. ba tey jii nag. Baye Omar nekk fii. loolu gën a neex. loolu gën yaatu. nee na ñu ñëw nag bokk ak ñun jotaay bi di ay boroomi xam-xam waaye di boroomi leer waaye di boroomi cër jóge nag ci xadara bu mag ñëw nag bokk ak ñun jotaay bi alxaaji Malick séq ak ñoom nag teraanga ju yaatu ju bari nag te xam naa ni cantam ci ñoom nag nee na moom na mu ko bëgg a waxee sax fa tabaarakallaahu mën naa manqué moo tax sax ma jël kàddu nee na di leen ko santal rek ndax fii nag moom dafa bokk nag ci keppaar yi nga xam ni gëm nañu ni nag yàlla gërëm na keppaar gii te yàlla nag tàllal na fi ab loxoom te yàlla dootu ko bank mukk ndax rënk bi fi ne maam moo ko fi defoon jox ko bàyyi bàyyi liggéey ko segg ko xoolaat ko ba mu mel ni jamaa nag ñu teg ko ci loxo yi ku sell sët yu sell yu téye ko xam ko di ko dundal am ci fulla am ci fayda téye ko bu dëgër sëtu Cheikh Ahmed Bamba yi nee na ñoom ñëpp rek koo ci gis rek xam na mooy kan waaye ci biir sët yi nag kenn ku mu ci nag kenn ku nekk kenn ku ci nekk. yaa ngi góor góorlu nag. sa diggante ak sa boroom ak sa di jaamu yàlla bu baax. di góorlu bu baax. ci sa diine ci sa mbokk ci sa dëkkandoo yi. bañ ku la bañ ku la gën. ndax <laughs> bëgg rek. ndax bëgg rek. ñetti wasi mam ñetti wasi mam Ahmadou Ndak waxoon. muy àll ba ak àll wa ak allahu akbar nga sukkandiku ci nag. ba ëllëg boo fekkee bàyyi nag. fekki maam yi nag. bañ a ruus rek. am seen gërëm rek. nee na loolu rek nag laa woon nag. dinaa ko ci sànni nag. sant nag alxaaji Malick nag xam nga leen sant na ñëpp nag. sant na ñëpp. seri Ahmed Bamba. mi ngi may wax ni ma. teraanga yëpp sotti na. kon nanu wàcce kàddu yi nag. ba kenn ku mu ci daal. kenn ku nekk kenn ku ne. tëb sa tëbiinu wayjur tëb sa tëbiinu wayjur loolu rek kay rëq sa ndigg nag kon waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. na ñëw na ñëw na ñëw amiin amiin amiin ya rabbal alamin amiin allahumma amiin ya rabbal alamin amiin eh, mati mati mati ya rabbal alamin waaw na ñëw na ñëw na ñëw waaw na ñëw waaw na ñëw waaw yéen lañ doon xaar ngeen ñaan mbokk yi ñu ngi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak uh, Thiénaba TV uh, boobu ba léegi ci gàmmu uh, kër Ndiaga Sarr muy gàmmu maam Ahmadou Bamba Niang ñu ngi génn sàng kër bàyyi Baye Bakary Niang macha allah fekk sëriñ bàmba ak njaboot gi ñu toog dégg ngeen kàddu yi am solo yi nga xam ni sànnante nañ ko fa waaye ñu duggaat ci beneen kër koo xam ni njabootu maam Ahmadou Bamba la. Euh, muy kër Baye Modou Mariam Niang fii ci kër Ndiaga Sarr ñu ci fekk fi njabootam euh, macha allah euh, comme niñ koy organiser woo rek gàmm gu jot waaye ren ñu yokk ci lu am solo ndax olof day wax ni ku yokkul rek yaa wàññi waaye ñoom yokk nañu ndax organiser wu nañu ñëw am benn dal waaye dafay teraanga yu yaatoo yaatu àndandoo bokk ndey bokk baay ñëw fii ci kër Ndiaga Sarr macha allah waajal lépp rek lépp luy bernde ñu waajal ko. waaye di waaj tamit euh, àndandoo rek dem ci cérémonie bi euh, noonu lañ ko bëgg a jàppoo ba keroog ñaan gu mujj ga euh, yàlla nañ ko yàgg a def ci barke yonent bi wax naa ko ay yooni yoon ma ni maam Amadou Bamba Niang ginnaaw bi mu génnee àdduna bàyyi fi bàyyi ma dikkee Niang mi nga xam ne moo doon woon ndono li moom mu liggéey li nga xam ne liggéey na ko ci xilaafa gi waaye bi mu génnee àdduna ki nga xam ni mooy rakkam muy bàyyi Baye Modou Mariam Niang nekkoon l' ambassadeur de maam Amadou Bamba ca macha allah nga xam ni. Euh, bamba ji maam ji bu dee ñëw gàmmu këram la daan dal tey euh, moom euh, moo nekkoon ñaareelu xalifaam ginnaaw bi mu génnee àdduna tamit Baye Bëkkëri Ñang macha allah moom tamit jël xilaafa gi dund ak njaboot gi waaye dund ak taalibe yi dundin boo xam ne dundin bu am solo la Euh, ànd koog Baye Serigne Ousseynou Niang ñooñu ñëpp nag yàlla def ñu làqu yàlla na yàlla dugal leen àjjana te ñu dëkk fa ak ñañ fa fekk yëpp euh, ndono li wàcc ci Baye Omar Baye Omar Niang ñu koy ñaanal mu gudd fan te wér ndax moom tamit euh, am na ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am am solo la ànd ak njoboot gi boot leen. ñu fekk fi Serigne Ibrahima Niang lañ fi fekk xam naa moom moo fiy teewal Baye Bëkkëri Niang di xalifa moo du Marème ak Serigne Bamba ak Serigne Saliou. ak ñi ñu ko bokkal yëpp waaye fekk fi tamit euh, ki nga xam ne mooy Serigne Ousseynou Niang euh, mi mu tuddee Baye Serigne Ousseynou Xaar euh, macha allah moom tamit ñu fekk ko fi mu ànd ak njaboot gi Serigne Soxna Ndaak Niang moom moo fi mag ci soxna yi ànd ak ay rakam ànd ak soxna Ndey Mati Niang ak soxna Aminta ak ñi mu ko bokkal ñoom ñëpp rek ñoo toog fii. kon kàddu soxna Ndaak mu ngi jëm ci soxna Anta moom la joxoñ rek bu ko defee moom la ñuy jox mu yëkkatil ko kàddu. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di ñaan bisbi bi niñ ko commencé ci bismillah yàlla nañ ko àggale noonu ci alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu ñëpp nag di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol soxna mi nga xamante ni nii moo jël kàddu gi jox ma ko pour ma jàllaleel ko ko ma jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxoom mu wàccewaat ko ci rakkam yëpp nag ak sunu mag yi waaye di jël nuyoo góor ñi tamit di ko teg ci sunu xalifa muy sëñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax moom it ñang baala di ko ziar di ñaan yàlla yàggal ko fi yàggal taxawaayam waaye di nuyu sunu yaay nag ñu yàgg fi lool soxna mbeenaan kooku nga xamante ni moo jiite woon kër gi ba tax njaboot gi ànd ba ànd boobu defe naa ni moo waral jotaay bi yal na yàlla gën koo rafetal ci daraja yonent bi di ñaanal nag sunu moo du Marème njëgal ak yërmande ndax dégg naa ni moo njëkkoon a yor xalifa bi ci tegaat ko ci loxop sunu baay Omar yal na yàlla yàggal ko fi ci daraja yonent bi yal na ko yàgg taxawu bu baax a baax waaye di jalaat nuyoo bi nag di santaat euh, sunu mag Ousseynou Niang di ko ziar bu baax nag macha allah moom mention spéciale taxawaayam ci famille bi waaw ñoom sëñ Bamba ñoom ñëpp luñ leen fàtte waaye nuyoo bi dañ ko toog ba Bakary rek mu jàllale leen ko di kontaan lool nag di sant waa Kër Ndiaga Sarr gépp nag. fekk nañ fi xéewal goo xamante ni macha allah xéewalu Touba rek laa ko mën a jàppe ak tàkkusaani maam Bamba sunu xol sedd na guyu waaw yal na yàlla di dafa fii jàmm gi yow sa tonton Ndiame ñu jàll la bu baax a baax ak soxna Ayda kooku defe naa ni mooy yaay faali maam Bamba ma nga ca ëttub maam Bamba jiite yaay faali moom di ko doxal comme na mu waree waaw ñun rakkami ñu ne nag ñu daal di ñëw fii nag lépp gën a yaatu waaye di sant sunu jeeg ñëpp nag macha allah. bi ñu ñëw dañoo takk woon pour liggéey waaye bi ñu ñëwee dañoo fekk ñu defar lépp ba ñu ñëwee ba tey dañoo toog sunu dara manqué wut waaw sunu lépp mat na ndaag nee na nuyu na leen ñoom ñëpp nee na gërëm na leen sant na leen nee na nag moom ñi nga xamante ni mooy soxna Ndeye Maty dafa gën a jege ci kër gi mu jël lépp teg ko ci loxoom ni ko doxalal waaye teewul xelam bu rafet xalaatam bu rafet ak i jëfam ak kàddoom ak dooleem lu ndaag am rek yónnee na ko teg ko ci loxoy soxna Ndey ndax dafa gën a jege Canaba ni ko jàllale ko bu kenn mer lépp baax na macha allah jàmm ji yàlla na fi yàgg. jàmm ji yàlla na fi yàgg ci barkeb maam Bamba li nga xamante ni sunu maam liggéey na ko ah gis nañ ko de yàlla yàlla àggali lépp lu fi juum nag ñu xamante ni manqué doomu aadama la xel matut asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, macha allah kàddu yi jot na sëkk euh, comme ni nga ko waxee rek yaay yi nga xamee ni ñoo doon gunge euh, suñu baay baay Modou Marème ñi nga xam ni dëddu nañ yàlla nañ dugg àjjana fekk ko fa ci barke yonent bi ñi nga xam ne ñu ngi fii yàlla nañ gën a gudd fan wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ko ak njaboot gi yëpp kàddu yi soxna Anta mu nekkoon kàddu yi soxna Ndaak mi nga xamee ne tey moom mag ci jataay bi ci jigéen ñi. Euh, moom la doon yëkkati soxna Ndeye Mati mi nga xam ne nag tey euh, dégg Anta wax na ko moom la euh, soxna Ndaak batale lépp ndax moo nekk biir Thiénaba moo gën a jige kon moom la ñuy jox kàddu gi rek bu ko defee moom tamit bu pare rek ñu daaneel ko nag ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy góor ñi kenn yëkkati ci kàddu yëkkatil sëriñ Bëkkëri mi nga xamee ni moom mooy xalifa Baye sëriñ Modou Marème Niang. sant yàlla bu baax a baax di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi bu baax a baax di gërëm suñu ñaari waajur nga xam ne ñu fàggul lii jël nu yóbbu ci jiital bàjjan benn di ci teg yaa daba dem teg ci meer kay rek ndax lii lépp ñoo ko fàggu ndax am na ñoo xam ne bu ñu meloon nii duñu ko mel ba lii di am ñoo ngi sant yàlla bu baax nag ndax li nga xamante ni def nañ ko ak déggoo moo ko waral ndax bu ñu déggoon li lépp du ci am waaye ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di sant jël nuyoo bi di ci jiital sëñ Bakary Niang di sunu xalifa di ci def soxna asu ndaak di sunu mag di ci soxna asu ñang di sunu mag di ci teg ndaak di sant bàmb ak Saliou di sant sëriñ ñaŋ bu baax a baax a baax a baax di sant Ibrahima ñaŋ ak ñoom taal ak ñu ko bokkal ñëpp ak ñoom Mbaye Niang sonn nañ ci bis bi lool ndax bëgg rek bis bi baax bëgg bis bi sagu bëgg bis bi rafet di sant soxna Ayda Ñang nag moom yaay faale moo ñu fa toogal na bu fa nekkuloon ñun ñëpp duñu si sañ toog fii waaye kenn toogul fee ndax moo fa toog mën na fa mën na matale na yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla yàggal taxawaay bi ñun ñëpp ñu sant ñëpp sama rakk yi ñëpp aminte ñoom ñoom ñoom xadi aaneen ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di sant sama jabar yi bu baax a baax a baax ndax lii bu ñoom rek bu woon ñoom dina métti torop ndax jékki-jékki da xëy engagé ab dal bu mel nii te dara sookewul seenu nangu la waa man na damaa mënta wax nijaay njaame bi bu baax a baax yow moom ci famille moom moom spécial nga ci famille bi waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm la ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal taxawaay bi sëñ yàlla lañ koy bàyyal macha allah. Ah, ñëpp di siyaar ñëpp. Ah, Ndeye Mati Niang ci kàddu yu am solo yi ah, kàddu gi genn la mooy sant rek gërëm sant gërëm ñaan ñaanal waajur yi leen faggul lii waaye. delluwaat rek euh, ñaan ñu àndandoo ko yàgg koo ànd te mu gën a taaru loolu moom mooy kàddu yi euh, mu gudd mu bari waaye sant tamit soxna yi leen jàppale comme ni mu ko waxee euh, lu ñu yéene woon yéene mu taaru te soxna yi summeekuuñu ñëw jàpp ci liggéey bi du taaroo noonu kon sant nañ leen waaye nag ki yore signature bi moom la ñu joxoñ muy Serigne Ousseynou Niang Euh, mi nga xamee ne tey euh, njaboot gu góor gi yëpp ci ndigalal baay bëkkër yi moom mooy yëkkati kàddu gi rek bu defee euh, bu ñu paree ñaan rek yëkkati jataay bi nag demaat ci beneen dal rek def fa ab ziar kon Baye Ousseynou kon kàddu gaa di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ah ñu ngi nuyu sëñ mm-hmm. di nuyu jotaay bi ñu fi demee sëñ Ibrahima sëñ góor ñi di jël nuyoo bi du ko jox soxna Ndak Ñang mu jàllale ko jox ko soxna Ndeye Mati Ñang ko bokkal mm-hmm. Ah, di nuyoo bu baax nag di kaddu gi ñu yëkk di kaddu Serigne Bakary Niang di xalifa Serigne Modou Maram Niang si ah, kaddoom lañ koy joxale si ndigalam ak si ndigalu Bamba ak si ndigalu Sary ba ak si Ibrahima Niang ah, di kaddu yi di kaddu yi di kaddu yi cant mbégte ak cant nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem muy taxawaay bii nga xam ne suñu góor gu tedd ka muy Cheikh Ahmed Bamba Niang moom la ñuy taxawalal bis bii bis bii nag di bis boo xamante ni bis bu njaboot gi fonk la bu sër fonk la si yàlla defee nag ba bis bi toll nii si njàmbaaru Cheikh Ahmad Bamba ak sunu njàmbaaru góor gu tedd gi El Hadj Modou Mariam Niang ak Serigne Bakary ak Serigne Ousseynou Niang ah ba xilaaf ak agsiwaat fii si sëñ Omar Niang ah, ak baay ma dikkee ah, ni ñu koy mën a waxee. ñi ko bokkal ñëpp ah. mbir mu nag bu demee nii ba agsi fii ñun dañ ci am ak kontante gu wér a wér a akub cant ndax cant mënta weesu nga am bis bu mel nii ñu taxaw ko nga woote say mbokk ñëw say xarit ñëw ñee toog ñëpp sama jeunesse la ñoo xam ne ñoo nekk ndoo cana ba tey bi ma ne leen dama am dal ñoom ñëpp dañoo lu ñu jàppoon dañ ko bàyyi ndey mati jeunesse am dem jàppoon lépp luñ koo bay ndaag jeunesse mbay jeunesse am ñëpp ku ne li nga jàppoon da nga ko bàyyi ñi ñëw si bis bi ngir jëmmalal ñu ko teewalal ñu ko kon ñun ñëpp ñu ngi leen di sant képp ku fi ñëw yàlla na la yàlla defal jàmm ak tew féex ba su déwénee nga man ko tal ko andi fi teraanga joo xamante ni nii euh, du am yemukaay te macha allah kontaan nañ ci bi si desit muy xarit Serigne Bamba ñang ñoom ku mel ni maam Moroom Baye Talla xaar. andu démb muy seen andu démb boobu. waaw euh, sëñ Maam Mor ñëw na fi ak taxawaayam andi teraanga. ma Amary ñëw na fi andi fi ay trangam ànd ko Alpha ak euh, euh, li ñu koy waxati sëñ moodu Fall ànd bi rek dañuy ànd bu kon ñoom ñëpp la fi seen loxo dégg dugg ñoom it leen di beral ak cant gu wér waaw di sant bu baax a baax a baax di sant njabootu Modou Marème waaw di sant waaw d'accord euh, di sant njabootu Serigne Modou Marème Niang mi nga xam ne nii ñun ñëpp dañoo déggoo nekk benn. yàlla bu ñu cat dugg yàlla ñu seytaane teggi te képp kuy julli rek dañu ñaan loolu ndax bu ñu déggoo woon woon lii du am kon ñu ngi kontaan ni njaboot gi jàppantee ak nu ñu defee lii ba bis bi taxawee nii ndax tey lañ def suñu premier dal waaye gisaguma échec xam ne nag ak guñ ci guddi waaye nii di ba ñëw ba nëgëri ñi ngi si ay échec amagul kon dañ si wax alhamdulilahi rabbil alamin mu ñuy gërëm suñu soxna yi ñoom ay yaay faal lañ bu ñu xasee jóg soxna Yacine Gueye mooy na sa kanam ànd ko Ami ak Oumy Dieng sama aawo ànd ko euh, soxna si Jama ànd ko ak soxna si mbay ànd ko ak soxna Ndioufa muy soxna Saliou ak Fatou Ndongo soxna si Talla Mboye ñu matale lépp nag matale lépp duñ deltu ginnaaw lépp lu ñu bëgg ñu ngi ci taxawal ba ni soxna yaam benn sekk di euh, euh, do jabaru Baye moo di sama rak mm-hmm. macha allah ñu taxawaay ñoom ñëpp taxawaayu rafet kon ñun dañuy dañoo kontaan. Mhm. kontaan gi nga gi ñu am mooy. Mhm. suñuy soxna déggal nañu suñuy mag déggal ñu suñuy rakk déggal ñu kon ñun daanaka xolu mbégte la ñu am. te mbégte gi ñu am yàlla nañ ko suñu borom jàppale. li wér ba wóor mooy kontaan nañu sa njàmme. Mhm. yow ñu ngi lay gërëm bu baax. sa taxawaay dafa rafet. ndax nii ngay def nii sémbalu Canaba nga. lu xew ci kër diine yi nga taxaw jëmmal ko rafetal ko lool. ba képp ko wutee gis ko si réseau bi. kon loolu kontaante la. Alpha Sarr mi xam ne mooy directeur bi moom it ñu am nañu ak cantam ndax bu xaralem ak loolu fii lii du am kon bu xarafteem àgg fa kon yàlla yàlla yokk xam-xamam nekk géej guy baawaan ba télé bi ñu koy tudd fépp mu dépassé tund luy tund yu cene ba mu dépassé ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax cene ba yëg nañ seen bopp gis nañ seen bopp famille gis nañ seen bopp kon kooku dañ koy ñaanal yàlla rek mu guddal fanam yokku man-manam mhm. yéen ñu topp ci am di ay soldaaram mhm. yàlla yokk yokk seen i kattan ak seen i man-man li nga xam ne ne doomu aadama moom xelam mhm. li ne sama xel mu lépp mun ma ko tudd dañ koy coppal fii rek coppal fii rek ñu comprendre mën a xam xam ne ñii am nañu mbégte kontaan nañ si bis bi yàlla nañ yàlla defal déwén ak jàmm lii nga xam ne sumb nañ ko bu déwénee mu raw di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu sant ñëpp nag euh, olof di wax ni daanu dajul suuf euh, waaye su ma sañoon Euh, damay wax ba képp ku dégg xam ni wax ji mat na waaye nag euh, wax ji mat na seen xel yu rafet euh, moom moo koy mottali loolu mooy kàddu Baye sëriñ Ousseynou ñang mi nga xamee ni kàddu ba Bakary la yëkkati kàddu njabootu Baye Modou Marème ñang la yëkkati dal bu dal boo xam ni boo fi ñëwee yow mi nga xam ne yaa xam démb ak barki démb sa xel dafay dal waaye da ngay am mbégte da am mbégte xam ni góor ga bu jógaatoon tey ñëw toog Euh, bu toogee tamit euh, kàddu yi cant rek lay am waaye leneen du ko ci teg euh, day kontaan lool tamit kon yàlla na yàlla seral ay yaxam muy Baye Modou ak ñam fa fekk ak njoboot gi nga xam ne ñoom la nekkaloon te tey ñu wuy seen borom yàlla na yàlla def ko lii rafet na lool taaru na yaa ngi sant léegi Thiénaba TV waaye Thiénaba TV ak kër Baye Modou Marème ñoo dëkk ndax damay wax ni benn mur rek moo dox seen diggante kon tey lépp lu nit di am ci ci ci télévision boobu kenn gënu leen cee yell kon ñoom tamit dañ cee war a am waaye euh, njàmme tamit buñ ko tuddee euh, tamit benn miir moo dox suñu diggante euh, te yàgg na mag ñi noonu la ñu dëkkandoo woon dëkkandoo ba rafet lool mu nekk jaxasoo ci biirum njaboot mu nekk loo xam ne lu am am solo la kon lii lañ jël si woon fii ci kër baay Baye Modou Marème Niang ci kër Ndiaga Sarr waaw jigéenam di xal li ñuy xel day fàttu muy soxna Aïda Niang mm-hmm. di soldaaru Maam Bamba mm-hmm. bi li amee si mhm. ndigalam la mhm. ah, ndax li ñuy doomu aadama xelam day fattu mhm. waaye mooy jëwriñ ji ñu moo joxe ndigal ni samp leen bu ngeen sampoo di ngeen samp bi ñu sampee ni ko wér na ñu ngi koy sant bu baax na di ko gërëm suñuy sant nañ ko ndax ni mu taxawee si kër gi taxawaayu góor la taxaw waaye yàlla na ko yàlla jàppale mhm. te sagal ko te suturaal ko mhm. guddal fanam ba ni mu nekk soldaalu Maam Bamba mhm. mu nekk lu wér te samp bu wér nag loolu laa leen naa ko si dolliwaat muy soldaalu Maam Bamba soxna Ayda Ñang fii ñu toog jigalam lañ fi toogee ndax mënta uuf ñaar yi waaye bu jiitalee ndey ma ne ko demal uufal ma ñële maa uuf fii kooku euh, xel mu rafetam la ak jikko ju tabe te yaatu waaw loolu lañ ci woon lañ ci dolli seen jàmm macha allah mu nekk lu mat mat na euh, ci euh, kaddu yi kàddu yi mat na kon noonu rek la demee euh, xam naa di joxante rendez-vous rek euh, ci beneen dal euh, lépp loo xam ne xew na fii ci Kër Njaga dañ leen ko woon waaye jaajëfal soxna yi nga xamee ni ñoom ngeen jàkkaar loolu noonu ci waañ wi ñoom tamit ñu toog ca cabine ba rek ñoom ñooy defar xéewal yi mu nekk lu amam solo soxna yi kër gi ak ñi nga xam ni ñëw nañ jàppale leen ci waañ wi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant